et 8 19 se douane Thiès Diap euh, Mboro 20 degrés qu'on a retrouvé ce matin aux environs de Mbour 21 Toubak Diourbel Diap Kaolack Sédhiou Ziguinchor 20 degrés qui revient justement euh, ci fajaru tey jile ci diwaanu Saint-Louis Richard Toll tolloon itam ci 21 degrés et Celsius guddi gi euh, laata ñu si addu diggu bëccëg gi moo jiitu kon nag faw ñu jox leen xibaar yu fa bàyyeekoo 23 degrés Celsius sera la température attendue alors pourquoi température bi wàcc fii ci firndeel mooy ngelaw gu bëri bu ànd ak poussière xam ngeen loolu bu fekkee ni naaj bi fasul trop rek dafay indi un air euh, un ton grisâtre euh, boo xamante ni loolu tubaab di wax mooy air bu xaw lëndëm noonu lëndëmul leerul Euh, loolu euh, moom la ñuy nemmeeku tey ci ndakaaru Thiès nag euh, jàngat bi ñu fay am mooy mbooya ndax jant bi dina fësal boppam ànd na ngelaw itam teg ci ànd ak poussière mais quand même le l'intensité du soleil sera beaucoup plus remarquable entre Thiès Mboro Touba Kaolack Kaffrine Sédhiou ba Tambacounda Ziguinchor à peu près temps bi am Ndakaaru moom moo fay am ci diggu bëccëgu tey jile euh, mieux avec 3 degrés de plus on avoisinera les 26 degrés Celsius Saint-Louis 32 ainsi 36 à Richard Toll et Podor 37 entre Louga et Matam de soirée maa ngi ko doon wax tantôt ci njëlbéenu guddi tey jile température gi ñu ci fajar gi di 20 degrés Celsius moom la ñuy nemmeeku fii ci Dakar Donc on attend 20 degrés Celsius de température en de soirée, 21 pour Thiès et Mboro, 27 Diourbel-Touba, 28 Kaolack, 29 Kaffrine, 26 Fatick, bàyyi leen si xel bu baax a baax Ziguinchor température dafay teel chuté 22 degrés Celsius la ñu fay nemmeeku 26 euh, Sédhiou en ba début de soirée bi la ñuy descendi ba tey Tambacounda toll ci 32 degrés Matam 30 Moomaki Podor jàpp Louga mais Saint-Louis 21 degrés la ñuy fay euh, daal di euh, gis ginnaaw loolu nag que euh, guddi gi bu xaajee jublu fajari suba Dakar reste quand même campé sur ses 20 degrés Celsius de température attendue 22 pour Ziguinchor 26 pour Tambacounda 25 pour Louga Podor et 26 pour Matam ñu jublu si géej gi euh, dina fer ñaari yoon te itam dana fees ñaari yoon fer gu njëkk euh, tey la woon ci 7 heures passées de 34 minutes donc ba jamono ji ñuy waxtaane géej gi mi ngi door a njëkk ba tey ci suba si booru 7h34 bi jant bi di fénk la géej gi fer fer gu njëkk incha allah dina feesaat beneen yoon mu doon yoon gu mucc ci diggu bëccëgu tey jile ci waxtu 13h48 minutes laata 19h54 mu daal di feraat beneen yoon mu doon yoon gu mucc ci bës bi mbokk yi voici nos prévisions météo je vous l'avais promis altine gu ne rek dañ ci ànd ak euh, tonton Fall Ndiaga bis ni ki tey ci fait divers ndax nag càmbar suñu société bi ngir mu gën a baax euh, moom moo ñu ñor ba tax ne ànd ak cosaan nañ ci ànd ak Fatima Diop eh, xibaaru tàggat yaram boo leen gisul Soxna Fall rek ni ngeen gis Baye Manta Mboup ndax nag ñoom lañ ci àndal c'est toute une équipe la rédaction qui vous offre justement euh, cette information ou cette dose d'information et bien sûr accompagnée de la production de la Sen TV bonjour à vous Fatima Diop. bonjour Asma. j'adore votre veste. Et je t'ai vue ce matin. Très belle, mon chat. Oh, merci. Avec euh, cette couleur-là. Oh. Rose. Faux chat bonbon. Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Merci. Merci. Merci, merci ma grande, merci. Reposant, oui. Machallah. Alors, euh, bonjour, chers téléspectateurs de la Sam TV et bienvenue. Euh, comme on a l'habitude de le dire, c'est lundi et lundi, c'est nous, la culture sera euh, de la partie pour parler un peu beaucoup de choses euh, concernant la culture sénégalaise, mais également étrangère. Alors, Rasma, euh, tout à l'heure, on va développer un peu ce qui va se passer, Inch'Allah, dans le domaine de la culture. Justement, Mme Sidi Diop, à qui je dis bonjour en lui demandant que le background de la matinale a fini son heure depuis 6h30 à 9h. Alors, on est dans Soubetel et dans le visuel, il est important de le rappeler. Tonton Fall Ndiaga maa ngi lay nuyu di la ziar. <laughs> mais fay sama jërbaatu bopp asma dina ñaanal euh, jàmm semaine bi ñu tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim. Mhm. yàlla nañu ko jeexale ci alhamdulilahi rabil alamin di nuyu madame Diop suma jarbaat suma xarit. Euh, di nuyu ma Anta borom sport bi di nuyu sa invité bi di nuyu Sénégal yëpp ndax euh, yàkkamti woon nañu lundi ba Soubetel tàmbaliwaat. Mhm. mi ngoog Baye Mantam Mbuub maa ngi lay ziyaara. delloo ziyaar Asma ci ak dugaar ak parcelle. waaw waaw yow ci parcelle ba ba ba jubali gàncax ah, cosaan gi. bi bi ah. merci beaucoup ah. Euh, c'est bi vieille euh, beauty by Binouche. Ah. man moo may solol ah tout ce qui est veste et tout elle a beaucoup de talent beaucoup de goût. mën na ko ah mën de dañu ne ki xarañu ko tànn. xara ki xarañ defar ko jongo ma sol ko. waaw ah, de formation <laughs> ah, lu ma ci waxaat yàqu ko. jaajëf bu baax a baax <laughs> allez loolu ma ca ndam quoi jigéen suñu daawoon boobu la en tout cas tolli moom rien à ah. waaw waaw ko nañ ko jeexalee foofu rek. dañoo sañ a wax lu ne ka mbégte la tamit di partagé moom plateau bi. parce que tamit muy dëkk fu yaatu foo xam ne day soxal réew mi di dalal tamit suñu invité bu baax a baax ak euh, les hommes de l'ombre ñu ci euh, jaajëfal maam Sidi ah, sama waa ji jaajëf. très bien mi ngi mi ngi noonu l'invité c'est monsieur Cheikh Kassé coordonnateur de G de la G d'une GIE e, des ressortissants et commerçants sénégalais de la sous-région ñoo ngi lay dalal ak jàmm. ñu ngi lay fay euh, soxna Sànn. Euh, noo def. ñu ngi sant yàlla bu baax di la nuyu di nuyu ñu bokkal plateau bi yëpp. macha allah di rafetlu invitation bi. Mhm. mi ngook ci rafetlu invitation bi la ñuy fàttali li nga xamante ni moom moo di bis ni ki tey ana li fi xewoon ci atum 2000 ou bien même 1978 la ñuy koy à tàmbale le Sénégal ratifie le pacte international relatif aux droits civils et politiques ce pacte a été adopté ouvert à la signature à la rectification et à l'adhésion Fatima Diop euh, par une résolution euh, de l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 euh, comme on a de le dire, le Sénégal a tout le temps l'habitude de ratifier les conventions signées à l'étranger euh, sur le plan international et autres, mais tout le temps il y a un problème de de de de d'applicabilité euh, de de de ces euh, conventions et autres. Donc mu nekk loo xamante ne ne il est important ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax parce que tout le temps dañu naan c'est un bon élève le Sénégal quand il s'agit d'appliquer certaines certaines conventions et autres mais malheureusement la ñu cay xaar bu baax a baax dafay des très très important ñoom ñi nga xamante ne ñoo di les décideurs les gouvernants saa yu ñu demee ci étranger également à l'étranger di fa ratifier quelque chose wala di fa signer quelque chose je pense que c'est important ñuy bàyyi xel également li nga xamante ne moom moo di seen dëkk surtout concernant yenn ponk yoo xam ne dafay am solo ci wàllu applicabilité parce que ba tey dañuy signer mais am na lu des lu baree bari yoo xamante ne duñu koy jëfee. applicabilité veut dire quelque chose d'applicable ou la façon de de nekkal dara. c'est bien de parler un bon français. Je sais pas pourquoi, mais j'adore quand j'entends du bon français. Pourtant, pourtant je suis pas française. Hein. Hmm. On va savoir. 13 février 2000. 2002. Durant la nuit de euh, la nuit, 99 cantines sont euh, ravagées par un incendie au marché des HLM, euh, justement à Dakar. Les pertes sont estimées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Tonton Fall jamono ji ñuy waxtaane mhm. marché Ocass fële ca diwaanu Touba amoon na lakk-lakk bu fa amoon mhm. il y démb ci guddi itam mu amaat euh, beneen lakk-lakk bu fa nekk mhm. lan la Sénégal war a a def ndax depuis 2002 ñun ñoo ngi dund phénomène lakk-lakk yi ana lan moo ko indi ak na lan moo ko fii dindi jërëjëf euh, c'est-à-dire problème mooy bu dara xewee duñ ci duñ ci jàngat euh, jàppoon naa ni marché Ocass du bii passé lakk gu métti gi la doon soog a lakk lakk na fi ay yoon mhm. euh, mu lakkaat fi lakk boo xam ni Sénégal gi yëpp di leen massawu te pare guñu ñoo ni lakkaat nañu ba waxaat ni des dizaines de cantines lakkaat na ci je pense que ban jàngat nañ ci war a am mais Sénégal li ñuy commentaire moo ëpp li ñuy def ay analyse ci ci ci ci mbir bu xewee cest dire que kenn ku nekk dangay ngay def ay commentaire mais doo doo def doo def ay analyse ci li xew lan la ak nan la ñuy fexee ba dootul am mhm. te du marché Ocass rek moom moo mës a lakk mhm. Kaolack moo ngi fii mhm. euh, parku Lambaay gii li yàggul tamit daloon na ci léegi nag lan moo xew mooy lan moo xew mooy lu tax lakk gi parfois sax ñu jiiñaat ko état parfois mais nañ ko jiiñ suñu bopp bu ñu bëggee am solution mooy dañuy jiiñ lakk gi bopp bu ñu ko jiñee suñu bopp ba pare ba xam ñun lan moo ci suñu responsabilité ñun commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi soog a nag xool lan moo ci euh, responsabilité état. Hmm. parce que yu bare bare bare bare bari bari bari bari du ma wax ni état yoonam nekku ci parce que moo war a organiser. Hmm. moo war a jël ay décision moom moo war a gis ni kat lii jaaduwul mu dind ko far force te bañ a suuraale wàllu politique. mais ñun ñi nga xam ne ñun ñooy installé courant ñun ñi nga xam ne ñun ñooy tabaxaat parce que parfois buñ dañuy def lotissement marché. Hmm. buñ ko defee ba pare après yeneen table. ñëwaat yàq mbedd bi ba nga xam ne sapeur pompier dootu fa mën a jaar ñaareel bi mooy cantine yi nga gis kenn ku nekk yokk un mètre wala un mètre vingt cinq tabaxaat ci sa kanamu cantine ba nga xam ne tey jii ba jéey a amee pour ñu jéem ko saafara si saase saase saase du mën a am moo tax responsabilité bi c'est partagé entre euh, l'État mmh. le maire et mmh. les commerçants. Mhm. c'est important c'est important de ñu bàyyi si xel bu baax a baax di fàttali ni itam branchement illicite yi ñu siy def euh, il faut ñu xam na ni ñoom ñoo fay bàyyi seen waar ñoom ñoo fay liggéey ñoom ñoo fay dàq dépense te lakk-lakk bu amee dinañ lor seen bopp lor seen morom mi nga xamante ni xëy na naam moom amoon na branchement normal donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mhm. euh, bu ko defee ñu mën a jàll ci atum 2005 fàttali Baye Mantam Mboup à l'âge de 57 ans le décès du célèbre et talentueux auteur, compositeur et interprète Ndiagambaï, un film documentaire de Hamidou euh, Dia et Laurence Gavron en 2001 intitulé euh, Le maître de la parole. El Hadj Ndiagambaï, la mémoire du Sénégal est consacrée à la vie de ce grand artiste. Oui, oui. en tout cas mu nekkoon koo xam ne ñun marqué nañu ah marqué nañu parce que euh, am na benn wéy boo xam ne boo mm-hmm. euh, ñoo marqué parce que musique yaakaar naa loolu lay jëriñ. Mm-hmm. musique dafa war di yeete dafa war di. Euh, orienté nit ki ci fi nga jëm. tey jii kon yaakaar naa ne jeune génération bi war nañu mën a gën a gëstuwaat ci ay parole Diaga mbay gën ko mën a fësalaat parce que jamono ñu toll ni toll nañu fenn foo xam ne ñooñu seen ay parole gëm naa ne bu dikkaatee mu war a mën a am lu bëri lu mu changé waat ci société bi te ñooñu tey mun naa jàpp ne manqué nañu bu baax a baax parce que musique sénégalaise quoi qu'on puisse dire am na leen lu bari loo xam ne daal sooxe na ko tey jii sooxe na ko parce que tamit euh, bu ñuy wax dëgg rek Euh, côté ambiance bi la ñu gën a mën a fësal que côté côté parole yi te yaakaar naa ne musique tamit dëgg la peut-être bu ñu jàppee définition bi rek euh, dina xaw a euh, doy waar waaye nag tamit musique bi yeete daal tonton Ndiaga xam naa loolu moom foo nga sànni si kàddu parce que musiciens yi jar na tamit tey jii ñu xoolaat bu baax a baax seen ay parole très bien en tout cas lii am na solo merci beaucoup on rappelle on rappelle déjà que bokk na ci ñi seen xalima di màcc euh, ba tey jii nii di leen dundal c'est important c'est ça être un artiste mm-hmm. parce que euh, son art doit euh, euh, euh, non non l'art de l'artiste doit l'immortaliser voilà ce que je voulais dire boroom xam-xam aaram bi muy bind wala ci li muy yëngu bés bu ko defee même bu génnee àddina dafa war a continuer di ko dundal ndax jàngat gi nga xamante ne moom lañ ciy xaarandi aywa mi ngi noonu tonton Fall Ndiaga ñu dem ci faits divers yi ba pare mhm. ndax nag ah foo médecin yi mhm. ma foogoon ni benn yoon la amoon fii ci Sénégal mhm. am ci période Covid 19 waaye jamono ji dafa mel ni dafa amaat euh, jërëjëf Asma kii def na ko huit ans huit ans huit ans def na ko choqué voilà voilà voilà ñu koy wax <laughs> eh. euh, ñu wax euh, docteur Fall. Euh, lii nag moo ngi xewee ci diwaanu Touba waaye ci xare ñu gendarmerie di brigade recherche bu Touba def na ci liggéey bu am solo parce que 2015 la installé cabinam fële ci diwaanu Touba xam ngi ni ku ko def huit ans. Euh, am na ñu bari bari bari bari bari bari euh, ci euh, brigade recherche ñoo xam ne jaar nañ fa te mosu ñoo xam lu mel nii kon bi ko yàlla dogalee ci commandant bi nga xam ni moom moo jiite brigade recherche bu Touba def ay pexeem def ay mbiram ba jàpp ko wax dëgg yàlla ba yóbbu ko ci fi nga xam ni moom mooy tribunal bu Diourbel jamono ji mooy en garde à vue parce que mercredi lañ ko lañ ko arrêté nan la ko defee mooy 2016 2015 la la la def cabinet moom nag euh, day euh, yàlla may ko tamit bayre parce que euh, bëri na ay malades yu bëree baree bari yoo xam ne tey boo demoon cabinet am day fees dell nit ñi di ko di ko di di ko di fa rang day bind tamit ay <laughs> ordonnance te xam nga li ci bind ordonnance xam nga li ci bind ordonnance ak lan moo lan lan cest di dire que lan moo tax mu def ko huit ans te kenn xamu ko lu lu tax ban autorisation la am ba def cabinet bi parce que ba def parce que euh, boo defee scanner da ngay am na ci ci kanamu xaw ma nu ñu koy tuddee. ci kanamu des médecins dañ lay certifié. merci ñaareel ko mm-hmm. mooy il faut nga bind ci kanamu cabine bi ni euh, cabinet diw diw diw diw wala cabinet pal par nangam nangam mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. bind ci li nga xam ne moom mooy euh, kii bi nu mu tëddati autorisation bi licence bi pour nit ñi xam ne yow am nga autorisation pour mën a doon médecin bi nga xamee ne nag euh, gendarmerie liggéey na ci ba jàpp ko ba jàpp ko moom mooy euh, euh, bu ñu nee amul diplôme. Mm-hmm. man nag leen rek laa gisul Sénégal mooy faux sapeur pompier. mais yi si des am na fi ba mu des euh, xaw ma lu tax nag foo sapeur pompier laa gisagul foo douanier gis nga ko gendarme militaire policier foo président de la république ah, foo <laughs> président de la république parce que président moom Abdou Fial am parce que ñëpp lay xam ñëpp lay xam ah, euh, dokkeer yi dokkeer yi sax am na ay foo dak dokkeer wallaahi foo sapeur pompier laa déggagul sa sa bakkan si dañ koy tay la ci xool loolu laa yaakaar dégg ma ne ko voilà. mais on en mais c'est grave. c'est très grave hein. léegi nag man démb bi ma mercredi la affaire bi am ne démb souvent xam nga boo dee préparer sa émission. Mhm. dama ni Madou dafa jàng wàllu médecine. mu raté mu raté te amul amul amul amul diplôme yi. waaw parce que dafa am ñaar ñu yàlla may am na koo xam ni yàlla may na ko mu am xam-xam bi. Mhm. waaye yàlla may ko mu am diplôme bi. man damaa jàpp ni huit ans nga di ko def. te mosoo see am problème bu ñu dégg ñun ba pare nga am ci yenn client yi ba sa cabinet day fees dell ak ay nit sa à lan moo xew peut-être fréquenté la fac médecine fac médecine oui am na xam-xam quand même bu waaw lan moo xew c'est-à-dire que hmm. bu ñu yemee rek ci faux médecin la du ñu xam li xew carrément mais da ngay da ngay da ngay dugg ci si biir mooy lan moo xew mhm. ndax dafa jël ñu yàlla may xam-xam bi mu jiital leen topp si ginnaaw ndax moom yàlla da koo may xam-xam bi te yàlla mayu ko diplôme bi saa di dire mu dem jàng mu dem mu dem ubbi gis ni moroomam yépp ñi mu ko bokkaloon ñëpp am nañu ay diplôme ubbi nañu moom it mu dem mu dem ubbi parce dafa am ñoo xam ne yàlla may na leen xam-xam bi ba ñuy am diplôme bi sax dañuy dem di laaj di rootee ci ñoom mais yàlla mayu leen diplôme c'est-à-dire que daal pour euh, pour tëj parce que duñ si yaatal mais yooyu yëpp dinañ la ko andil mm-hmm. insha allahu rabbi lundi prochain moom mooy jàpp nañu benn médecin boo xam ne 2015 la installé wu Touba ouvert cabinet brigade bu recherche bu gendre bu gendarmerie bu Touba jàpp nañ ko mercredi yóbbu ko tribunal ba jamono ji moo ñaan gàddaal peut-être en tout xaw na doy na waar mm-hmm. na waar xam naa kom daf ci ñëwaat incha allah bu gënee leer ñu mën cee mën a àddu mm-hmm. tonton Diaga merci beaucoup à vous Baye Manta Mboup moom la ñuy dalal ci xibaaru tàggat yaram bu ko defee ñu dooree ko ak ponk bi njëkk football douzième journée Ligue 1 et Ligue 2 sénégalaise ci la ñuy addu Jambar et Jamono Fatick reste ligue leader. oui oui reste leader après <laughs> donc euh, trêve bi nga xam ne amoon nañu ko ngir nag lu soxaloon euh, chan bi kon week bi dañu reprendre nag lii di douzième journée bi ci Ligue bi ak Ligue 2 bi dañu koy dooree ak Ligue bi jàmbaar mi nga xam ne nag waxtu wi am na vingt 24 points dafa nag conservé euh, photo yu leader am gannaaw nag ba mu daanee kon ñii di waa US Gorée benn ball ci dara ci boobu la waxtu sax démb kon. ca euh, diwaanu nag euh, foofu ca Aline Sitoé Diatta ca euh, Ziguinchor Casa Sport di fàttali tamit dafa daan Sonacos ñaari bal ci benn Casa Sport tamit tolloo ki ay poñ ak ñi di waa jàmbaar 24 points la am moom waxtu bi kon moo nekk euh, dauphin am jaraaf bu ndakaaru am 18 euh, points quatrième place bi dafa def match nul si digganteem ak Guédiawaye FC troisième 21 euh, points kon mu nekk point bu am solo bi nga xam ne Guédiawaye am na ko foofu ci stade Iba Mar Diop ci digganteem ak jaraaf benn ak benn Linguère bu Saint-Louis moom dafa def match nul ak CNEPS excellence bu Thiès nekk lanterne rouge si championnat bi un but partout la ñu def Teungueth FC cinquième 17 points dafa daan ñi di waa benn bal ci dara kon jàpp ne AS Pikine ak AS Douane la ñu def Euh, match bi doxoon nag ci diggante Dakar Sacré-Cœur ak Génération Foot dañ ko dàq ndaxte li ko waral bokk na ci ñi di waa Génération Foot tey jële booy xool am nañ nag 7 jours yoo xam ne waxtu wi ñoom ci équipe nationale u bi nga xam ne day waajal li jëm ci wàllum nag euh, CAN u moo tax sax euh, lii di Ligue Pro bi jël nag décision dàq boobu le match ba le 11 février euh, ba le 19 mars en tout cas ñu jàpp ne tamit 19 bii lañ dugal nag ci on 12e journée bi soxal Ligue 1 bi ci Ligue 2 bi jamono bu Fatick moom am 22 points dafa def match nul si digganteem ak ñii di HL bu Rufisque premier bi ak deuxième bi la woon kon euh, classement bi foofu changé wul Oslo FA troisième 19 points dafa def match nul tamit si digganteem ak ñi di Kër Madior zéro but partout US Wakam moom moo daan ñi di waa Demba Diop tey jëlee nag asma la ñuy jeexal douzième journée bi soxal Ligue bi ak ay jongante yu am solo foofu ci stade Alassane Djigo diwaanu Pikine 16h port autonome Ndakaaru la ak Dakar Université Club 16h30 ci stade Caroline la ak ñi di waa HLM bu Ndakaar derby Thiès waa bi nag euh, ca stade Maniang Soumaré la 16h30 fas yéene dox ci diggante Amitié FC ak ñii di waa Thiès FC. mi ngook Ligue des champions huitième de finale aller ce mardi et mercredi. waaw Ligue des champions tamit jàppal na amoon na trêve tamit ngir lu soxal huitième de finale yi coupe du monde bi moo ko waraloon waaye nag euh, demain mardi la ñu reprendre kon lu soxal huitième de finale aller yi ak ay jongante yu am solo sax jàppal ne vingt heures AS Milan moom dina ci laale ak ñi di waa euh, Tottenham euh, ci boobule waxtu si la Paris Saint-Germain fas yéene laale ak ñi di waa Bayern Munich di fàttali ni kon bokk nag ci match aller bi de même que kii di Kylian Mbappé Sadio peut-être moom retour bi dina nag euh, def retouram ci euh, coupe euh, bu Ligue des champions gannaaw boo amee ab gaañu gaañu avant coupe du monde bi mercredi kon si la nag 20h FC Bruges di laale ak Chelsea FC ak Benfica la Chelsea moom day dem foofu ci Allemagne di fa laale ak Dortmund match retour yi nag. soxol yooyu Ligue des kon balaa ñu amal sax boobu le match retour la ñu amal yeneen nag huitième de finale yi vingt heures Liverpool ak Real Madrid loolu nag le 21 février lay doon. Euh, le 21 ba tey jàppal ne Francfort dina ci laale ak Naples mercredi 22 Leipzig bu euh, ñii di Abu Diallo ak Manchester City la Inter bu Milan ak ñi di waa FC Porto lay doon Asma Khadija. Merci beaucoup ñu àddu ci basketball lu waxtaane la fédération a pris les devants pour une dernière fenêtre des éliminatoires du mondial. oui démb nag euh, comité directeur bu fédération. sénégalaise bu football lañ doon nag def seen réunion lépp rek ngir waxtaanee lu soxol euh, finance euh, saison vingt 2022 am na nag ay coppite yoo xam ne apporté nañ ko ci saison bi yees bi yokk prime yi soxol nag lii di euh, Ligue 1 bi ak D1 muy D1 ak D2 côté jigéen ñi ak góor ñi ci noonu nag kii di maître Babacar Ndiaye wax na nag waxtu wi kon jël nañ matuwaay war yëpp ngir Sénégal mën a nag dugg ci fenêtre euh, muy fenêtre bu mujj ngir nag Sénégal mën na nag am qualification bu koy permettre mu bokk ci coupe du monde bi ñu amal foofu ca Philippines ak euh, Japon ñu teewlu kon maître Babacar ak kii di Sadio Habibou Ka. déposé nañ liste yi am déposé nañ visa yi dina génn lundi envoyé woon nañu FIBA ak fédération égyptienne ñi xam ne ni visa à l'entrée à l'aéroport lañ waroon am ñoom. démb la ñu mujjoon bi te ñu laaj ñu yónnee leen billet d'avion yi ak compagnie aérienne yi ñu war a jëm yëpp. lépp pare na fu mu ne daal normalement délégation bi jógee Dakar le 19 la fi war a jógee dimanche pour euh, que ñun ñëpp dimanche si guddi presque ñëpp nekk fa ñu mën a entraîner lundi mardi mercredi ak jeudi. ñu gagné championnat bi comme ni wax comité directeur bi xool nañ aussi pour valoriser suñu championnat bi boo xoolee léegi même kuy gagné championnat yi dem compétition africaine. donc yóbbu nañ ko de dix de cinq millions à dix millions donc du Sénégal aussi ñu de jëlee ko ñëpp sentir seen bopp. ñu ne champion de ku nekk da nga am un million. ku perte am trois cent mille léegi le champion national de de dina am million loo am léegi dina am deux millions. mu nekkoon waaw euh, maître Babacar Ndiaye Asma Kharija di fàttali nekk ni kon yooyu la fenêtre sax dinañ ko amal le 24 ak le 26 euh, février foofu ca Monastir euh, ca Égypte jàppal ni kon Sénégal moom ci poule F la nekk fas yéene ci ànd ak Cameroun Sud Soudan ak euh, Tunisie en tout cas Sud Soudan bokk équipe bu tamit xaraña ci euh, bile compétition parce que basket bu ñu xoolee récemment def na ay évolution yu am solo de même que euh, Tunisie waaye Sénégal nag 15 points cumul de 15 points la kon deux victoires rek Sénégal boo ko amee dina ko mën a permetre nag mu bokk kon ca coupe du monde bi nga xam ni dañ ko amal foofu ci Indonésie Philippines ak Japon ci mois de septembre ci atum 2023 Asma Khadija ñu fa ndar keppee ko foofulee di la jaajëfal bu baax a baax Baye Manta Mbow. merci à vous Asma Khadija on se donne rendez-vous donc. mercredi ou vendredi ou ci kanam non mais il faut rappeler que à 12h à am sur Zik FM parce que na ci Pierre Faye ou Khady Khady Diouf mhm. ak Ndiaye jaajëf Asmatou Dione mi ngook vous restez en notre compagnie ñu dalal nag euh, ki nga xamante ni moom moo di gan gi di wuyoo euh, justement monsieur noo def euh, quel est l'état des comment dirais-je des commerçants ici au Sénégal bon juste rek ñu ñëwoon doon préciser mhm. invitation bi bon dañu am benn colloque bu ñu war a organiser au niveau de Thiès ou manufacture de Thiès mhm. Euh, euh, GIE bi bi ñu ko amee depuis euh, def nañ fi un tour du Sénégal rencontré nañu ak les concernés muy la douane waxtaan nañu ak ñoom ba am nañ ci ñoom accord yu bare bare puisque li waral GIE bi presque mooy tracasserie bi doon am entre les commerçants et la douane loolu daal moo waraloon ñu créer GIE bi bi ñu demee ba xam ni euh, gisuñu suñu bopp ci liggéey bi ñuy liggéey au niveau du Sénégal même à l'étranger sax au niveau du Mali et du Burkina côté yooyu yëpp duñ fa am benn jafe-jafe mais bu ñu ñëwee au Sénégal pratiquement daanaka ci ay coono la ñuy coono la ñuy nekk daal ba bañ fi jóge loolu nag euh, euh, créé woon benn euh, ci suñu collège yi mu def ci benn cri de cœur ñu gis ci ñun ñëpp suñu bopp taxawal GIE bi au niveau du Sénégal et dans la sous-région mm-hmm. waaw ñu fas yéene nag jéem a essayer de se retrouver entre ñun ak la douane ak euh, les contrôleurs économiques yi nga xam ni ñoo nekk ci yoon wi aussi. Mm-hmm. Euh, vraiment temps yi ñu ngi ci subir aussi ay ay tracasseries yu xaw a doy au niveau de Tambacounda. Euh, bon léegi nag bi ñu wootee ci réunion nee ñu dañu bëgg a def benn colloque au niveau de Thiès bu ko defee ñu woo toutes les concernées ñu toog waxtaan au autour d'une table. Mm-hmm. puisque bi ñu ko defee avec la douane am nañ ci satisfaction. pourquoi pas bu ñu defee colloque bi invité leen ñu toog waxtaan ci duñ ci mën a euh, trouver solution loolu daal moo doon initiative présentement euh, colloque bi au niveau de Thiès le 25 février 2023 incha allah bu buñ ci bi ñuy dëg mën la kon bu buñ ci àggee ak jàmm mhm. on espère que waxtaan boobu dina tax ngeen càmbar bu baax a baax lépp lu fay mbalit nag ñu génnee ko teg si ci parce que quand même euh, muy wàllum commerce Fatima Diop moom moo yor économie fondamentale du Sénégal ça c'est clair et puis euh, euh, mu ngi wax léegi naan yaa yaa yaa des tracasseries yoo xamante ne moom ngeen di jànkoonteel quel genre de tracasserie parce que bu ñu xoolee ci côté transport bi le plus souvent ñoom dañuy wax ne ne dañuy jànkoonteel ay jafe-jafe peut-être ñoom ak les hommes de tenue et autres mais yéen ñi nga xamante ne yéen a yëngu ci njënd ak njaay bi ban façon ngeen ni jànkonteel ba mu waral ngeen bëgg def benn lël euh, pour waxtaane ko bon tracasserie yi weesuwul bon d'habitude c'est les transporteurs ñun GIE bi ñu créé euh, auparavant ñoom ñoo daan euh, doonoon suñu interlocuteur mm-hmm. avec les autorités okay. de ce fait que ñun nous, des importateurs dañuy jënd marchandise au niveau de la sous-région. Mhm. chargé ko dans des camions. bu ñu ñëwee ñu def suñu transit. Mhm. dédouané même au niveau de la douane am na ñu parking boo xam ne boo ñëwee dinañu euh, écorer sa sa sa sa marchandise nga jóge fa dem ci euh, euh, kii bi escadère bi ñu escadère oto bi ak marchandise bi li ci contenu marchandise bi yépp mais. da ngay dem ba euh, en cours de route les postes de contrôle ci n'arrives pas à s'en sortir d'accord puisque boo jëlee li nga xam ne moom nga yor euh, comme argent de poste frais de route mm -hmm. tu parviens à, à euh, sortir quatre cent mille francs de de de du frontière à Dakar mm-hmm. te loolu yëpp ci ay jox ma indi lay yem ba ba ngay agsi. donc te forme de corruption voilà loolu nag bo am ci ñoo xam ni seen exploitation dafa féete ci fruit. te xam nga fruit dafa xaw a sensible. ñu bëri seen alal yàqu ci. ba bi ñu defee cri de cœur boobu ci lañu retrouver nag ñu ne la créer benn GIE. très bien puisque bu ñu créer GIE bi jàmm ji ñu ci mën a am ñun ñëpp autour d'une table waxtaan. trouver solution ci la ñu créé GIE bi. Euh, may may nuyu le président Moussa Diop. Mm-hmm. comme c'est le président du GIE. Mm-hmm. bon. moom moo copté euh, euh, euh, GIE bi. Mhm. ma nuyu ko au passage que xam naa moo waroon na siège sax mais COP dafa am contrainte. Mhm. ma ne naa toog COP sur le coordinateur. d'accord c'est important li ngay wax nii xam naa peut-être GIE bi mhm. li gën a doon tànkam mooy peut-être gàttandu. lépp luy jafe-jafe laata importateur bi di importer di ngir indi ko si réew mi ndax peut-être cursus bi day xaw a gudd. waaw puisque dafay xaw jël temps. xam naa foofu xëy na mooy gën a nekk seen ay problématique oui vous mhm. dites puisque ñun aussi xam nga bon euh, gàbbu autosuffisance alimentaire mhm. ñun liñ ci combler kenn mënu koo xam puisque euh, Sénégal bu fekkee dañu bëgg euh, compter rek ci li ñu fi récolté yaakaar naa ni bu dutoon ak commerçant yi nga xam ni ñooy génn dans la sous-région kon dina am problème dinañ am difficulté bu rëy ci autosuffisance alimentaire. mais pourquoi yéen peut-être une petite question au passage. Mhm. pourquoi yéen bu fii xaw jafe wala ngeen def 50-50. Mhm. Euh, jé jéem a dooleel itam mhm. l'agriculture sénégalaise. jéem a toog xool ñi baykat yi nan la ñuy jël koppar def ci ñoom. pour bu ëllëgee dootuñu jéegaani waaw mais kooku aussi volonté politique la. waaw d'accord mais mais su fekkee ni kenn ku ci nekk. comme mhm. GIE bi nu muy def xam nga GIE bi dafay gàttandu. waaw donte li GIE bi di def wareefu état la. wareefu état la. n'est-ce pas ce que e bi du yëngu ci wàllum lool comme on parle mhm. d'une GIE. Mhm. Euh, pourquoi pas que ci ngeen boole itam ci wàllum googu ne. dañuy suqali. suñu mbayum réew. bu ko defee dootuñu jéegaani. waa jéegaani bi xam nga bon ku sañoon ci sa biir réew li li ngay ressources humaines yi ngay am. doo ko doo ko wuti feneen. mais manquement bi kii mu mu mënuñu ko mënuñu ko xaar. ok à chaque fois yaa ngi dégg le le ministre tutelle de de l' agriculture mu ngi naan autosuffisance alimentaire mais tant que amuñu volonté politique boobu ça n'ira pas. très bien. Ah. très bien c'est important alors c'était oui allez-y. par euh, gis ne commerce euh, bu Sénégal stable lan moo tax euh, am nga stable parce que prix yi des fois peut-être yéen ni ngeen koy jëndee. ci biti dina gën a yomb mais boo ko dugalee fii nii tey mun na jar prix bi gannaaw soo mu jar prix bi euh, stabilité boobu lu wax mënuñ ko am. mais xam nga loolu nag moom laa lay expliquer puisque euh, déjà euh, commerçant bi du jël xaalisam dem à l'étranger jënd fa bagage ñëw sur toutes les frais yi mu degg yi mu yi mu frais ci yoon bi daf koy daf koy arrondir ci biir marchandise bi même tra tracasserie boobu ñuy wax bu bu bu bu bu amee après le commerçant du du après daf koy dugal ci biir daf koy commerçant bi du perte daf koy dugal ci biir kii bi loolu moo waral ñu defoon ci ay démarches bi ñu créé GIE bi GIE bi euh, entamé ko on a fait le tour du Sénégal dem nañ ci le toutes les chefs subdivisions au passage maa ngi nuyu le colonel Abdoulaye Fall nga xam ni moom moo doonoon suñu tutelle euh, ak Kidira bien vrai que sax bon euh, douane temps yi yëpp am nañu ay affectation mais n'empêche que bon li ñu commencé ci moom mu ubbal ñu ay ouverture yu bare bare bari ba nga xam ni bon le peu de réussite bi ñu am akus néew ci moom la euh, démarré ñu ñu ñu boole ko ci colloque bi ñuy def au niveau de Thiès ba nga xam ne keneen ku ko dégg le c'est c'est ñi nga xam ni ñoom ñoo ko remplacé au niveau du Kidira ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen régions yi remplacé fa seen i seen i seen i morom bu ñu ñëwee bu ñu deful le plus euh, yaakaar ñu def le moins. très bien merci beaucoup à vous pour ces éclaircissements merci surtout à tonton Fall Ndiaga qu'on retrouve tout à l'heure à 11h dans waxtaane ko ah sa na. sama nijaay merci beaucoup merci monsieur euh, Kassé. merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Baye Manta Mboup merci beaucoup à vous éventuellement on marque une petite pause publicitaire et on change de plateau. si sage de. bu bëggee kër gi seet. madame ça va. baa takkoo bi ngay dugg xanaa yóbbul li xew. eh jàppaleel kii. pour lan yaa ma dëmbali ko. yaa ngi joxe sama secret bi. maa la jàppaleel lii ci raxas bi. parce que kanam nag sonnoon nga. ak amoon ñaar da ngay seet seet la di fee. sama xanaa yaa fi jaar. armonia mi moo ma. waaw waaw armonia sa kër tey set tey xëy na mais. kon daal jaaraama si jàmm parce que armonia ci sama ak armonia sa kër day nes mi nga ko mbokk yi ngeen nekk nag ba tey sur la chaîne leader di chaîne bu baax bi nag ñun ñoo xew te lépp lu fi ndam ñoo ko yor Fatima Diop la si wéyal dil di àndal waaye tamit gan yi nga xamante ni dañoo dabu si ñoom dañ leen di dalal ba noppi laa tey wéyal Emma. Salut. Emma de Emma Beauty dont je parlais tantôt, mon esthéticienne est sur ce plateau ce matin avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Oulès, Oulès. Bianca Bichi <laughs> bonjour ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateur tey moom da ngay nuyoo si wolof nag Marialis. essayé. Eh, vas-y <laughs> nuyool. salaamaaleykum salaamaaleykum. waaw nuyu naa leen. maaleykum salaam. nuyu naa leen. nuyu naa leen. c'est ça. macha allah dina ñëw nuyu naa leen ah. dina yegg si incha allah rabi maa ngi ko doon wax tantôt nee naa leen Pape Massène Guèye nekk président du conseil communal de la jeunesse ca diwaanu Fatick. Euh, Fatick la ñuy waxtaanee waat beneen yoon moom la ñuy dalal ci gan gu euh, topp si Marie-Alice Bilé bonjour à vous monsieur Guèye. Ah, merci beaucoup Asma maa lay nuyu di nuyu sa team bi. merci beaucoup di nuyu téléspectateur ak téléspectatrice bu Sen TV. di nuyu waa Fatick mais aussi di nuyu des frères et des sœurs qui travaillent ici à savoir Omar Talla Ibrahima Mbow, Ibrahima Pouy, Aïcha et mon ami et grand frère aussi alin Badara maa ngi nuyu aussi population Fatick yëpp merci. Aline Badara Sonko fan yii nag daf may jàppale ci coordination bi bu baax a baax parce que voilà daf may utal ay gan yoo xamante ni saa yu ñëwee day méngoog jamono. vous avez vu vendredi dernier dalaloon nañ fii euh, le la jeunesse populaire je crois. de maître euh, de Malick Guèye. Mm. bi ba jugee ci grand parti dem euh, sampal boppam donc mm. tey mu fësoon ci jour. journal bi le nouveau candidat. <laughs> Ah tout le monde se doit même d'avoir l'ambition présidentielle parce que ça veut dire qu'on aime autant et on aime tant sa patrie pour pouvoir vouloir la diriger c'est important mais qui a vraiment la carrure présidentiable c'est là où la question Paul Mendy les formateurs en prise de parole publique fondateur et gérant de la société anti conseil basée en Français de plus parmi nous ce matin Mission accompagner toutes les personnes à délivrer un meilleur message. C'est important la positivité. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va très très bien. Vous allez bien En tant que coach, vous me trouvez comment <laughs> oh bah. je, pourrais dire ça à la fin de l'émission. c'est le début, il me des éléments. C'est vrai Vous n'avez pas suivi la première partie euh, depuis tout à l'heure euh, Non, j'ai pas suivi. J'étais en train de texter. Je m'en ah. excuse, mais vous aurez n'est-ce pas Mais je sais que ça fait partie de, de, de la positivité, de savoir accepter les critiques et, et d'en faire des critiques une remarque C'est ce qu'avait dit, euh, euh au président de la République à Thiès. <laughs> il faut des sauces comme ça. Fatima Diop, avant qu'on aille uh-huh. à Fatigue ou à Emma euh, Institut ailleurs, on reste ici au Sénégal et on parle de donc l'ouvrage d'Idrissa Sow sur le métissage culturel. on va en parler euh, dans le Fouladou. Nous évoquerons aussi la formation sur la danse contemporaine ah, de quelques acteurs à Rufus. Une belle danse. Effectivement, tu as parfaitement raison. Et puis, sans plus tarder, euh, on va voir avec la régie l'élément d'Idriss Sow, euh, l'écrivain qui a écrit un ouvrage intitulé euh, un peu. Le, il a rendu hommage à Youssou Mballo, mais également euh, parlé du euh, métissage culturel. Dans le Fouladou, c'est important. ñu seetaan élément bi daal dellusiwaat ci plateau bi. naa ne le ministre de l'éducation nationale. war na ko dugal ci programme bi ñu bind ci ay suñu suñuy valeurs yi nga xam ne ñu ngi fii nga xam ne tey bu fekkee ne nekkatuñu fii xale yi am nañu ay référence parce que loolu moo nekkoon problème Afrique ñun dañoo amoon histoire bu bu bu bu baax bu am importance mais duñ doon bind te soo bindul rek une histoire ou une civilisation boo nga xam ne binduñu ko rek dafay riir xool jàngal alxuraan dégg nga euh, euh, euh, ba benn ñaareel bi dundam c'est-à-dire lu muy wax ak lu muy jëf dafa méngoo comprendre nga fu may waxee am na ñoo xam ne am na ñu alal ak yooyu waaye amuñu lu tubaab di wax intégrité morale dunu sa nag am na loolu yëpp ku ku ku jub la ku am diine la ku am integrité waaye aussi day dimbale nit ñi te buy dimbale nit ñi du ko du dem ci télévision wax ko du dem ci koñ bi wax ko am na bëre ci fuladu moom moo ko réglé foofu donc man bi ma defee sama lanket nag yooyu yëpp ma génnee ko gis na kii ku baax la voilà c'était Idrissa so euh, Asma Khadija doon wax nag li jëm ci téere bi nga xamante ne bind na ko et mu jàpp ne c'est important comme ñu ngi jëm ci wàllub révisionner un peu li ñeel système éducatif bi ñu introduire un peu des programmes yoo xamante ne ça permet aux jeunes euh, surtout ñu mën cee gis seen bopp jàngaat ci lu baax a baax baax na yenn ñi nga xamante ne ñoo nekk suñu kàngam mi fii ci réew mi di bind ñu mën ko dugal ci biir curricula bi dina am solo loolu ku ci nekk mën cee gis euh, bopp alors on va parler comme tu l'as dit tout à de la danse contemporaine euh, fële ci Rufisque mu mel ni des jeunes la ñu formé ci wàllub tàggat boobu noonu euh, en compagnie ak euh, waa groupe Socosim ñu daal di def benn partenariat ak ay formateurs ci wàllu woowu avec la complicité de la régie ñu seetaan leen un peu avec sunu correspondant bi nekk Rufisque Mansour ak Charmé Tidiane Sack ils ont, c'est la première fois qu'ils aient l'occasion de, qu'ils ont eu l'occasion de faire ce style-là. Et ça, ça a été peut-être un peu difficile au niveau de notre corps parce qu'on n'était pas adapté à cela et tout. Mais au fur du temps, on a pu euh, gérer la chose et mieux comprendre mon corps, comment bouger telle partie et telle partie. On a eu à apprendre à connaître notre corps. On a déjà fait des croquis de notre silhouette et euh, avec Adèle. Euh, on a eu à faire des méditations, euh, du yoga, tout ça, afin de connaître notre corps, de mieux le connaître et ainsi euh, savoir comment bouger, mieux bouger. Et aussi, euh, on a eu à connaître beaucoup de choses par rapport à la danse contemporaine qu'on ne savait pas, par exemple. Par, par, par exemple, moi qui savais, euh, qui connais déjà la danse, il y avait des choses qui m'avaient peut-être échappé, ou non, pas peut-être, sûrement échappé, mais elle a su ouvrir les yeux sur ces choses-là. Euh, L'idée, c'était, euh, de... je, sais que Rufix que danse beaucoup, qu'il qu y a beaucoup de talent en danse urbaine, danse traditionnelle, et je voulais voir qu'est-ce que je, pouvais apporter avec la danse contemporaine. Euh, la suite en Casamance, c'est euh, encore dans cette idée d'échange culturel. Euh, je, connais très bien la Casamance, bien mieux que Dakar, et j'ai l'impression que ces deux régions communiquent pas comme ça. Donc c'était ça l'idée. et la danse contemporaine, elle se définit de plein de façons différentes et vous trouverez autant de danseurs contemporains différents que qu'il que y a de danseurs. C'est avec beaucoup de facilité qu'ils se sont mis à ce euh, nouveau style de danse et la Fondation Sokosim est vraiment ravie d'avoir pu les accompagner et leur avoir fait découvrir euh, un autre univers, hein, puisque euh, même au niveau des musiques, c'était des choses qu'ils qui n'ont pas l'habitude d'entendre. Ça peut être un peu perturbant dans un premier temps, mais Euh, voilà, ça montre un peu l'ouverture aussi. Hein. complète. Oui, effectivement. Voilà, la danse contemporaine, c'est la danse la plus complète. Effectivement, Asma Khadija, tu as parfaitement raison et, et c'est quelque chose euh, boo xamante ne dafa eh, am solo. Excusez-moi s'il vous plaît, vous êtes des professionnels de micro, vous savez que ça rentre dans le direct. <laughs> voilà, c'est ça. Alors euh, comme ni nga ko waxee rek Asma Khadija par rapport ak euh, la danse contemporaine da ngay gis ne ne dafa am ay vertus yoo xamante ne dañ ko ci def ku ci mel ni euh, Germaine Acogny ci école des sables nga xamante ne ñu ngi koy def fële ci Ndayane muy école bi nga xamante ne moom la fa am ak keneen ak keneen euh, ñu ngi koy euh, def ku mel ni Gagne Siré aussi ñu ngi jëm ci danse bi pour euh, tàggat ñu bare bari ci xale yi alors Asma on va parler du cinéma cinéma art la ñuy wax xam nga ñu ngi waajal léegi FESPACO bi bu baax a baax mm-hmm. avec la complicité de la régie ñu def benn élément jagleel ko Moussa Sène Absa xam nañ ne nag filmam bu bees bi mu génnee dañ ko retenir ci compétition bi pour prix yeneen bi ñu seetaan portrait bi nga xamante ne Sow def na ko ci après dellusiwaat ci plateau bi pour boucler. qui existent avec des auteurs qui ont des empreintes qui ont des personnalités et partout dans le monde vous dites cinéma africain on vous sort Sembène on vous sort Djibril on vous sort euh, Johnson on vous sort Félix on vous sort Euh, Alain Gomis aujourd'hui mu def liggéey bu mucc ayib ci wàllub théâtre Moussa Sène Absa juddoo fii ci mim réew moom mi lee doonoon na comédien sur scène laata muy viré dem ci théâtre œuvre bu njëkk en tant que metteur en scène moo nekkoon la légende de Rouba nekkoon itam acteur ci ay long métrage yu bëri bokk ci ñu mën a tudd peignoir noir ci wàllu réalisation mu def ci liggéey bu mucc ay itam dooree ko ci court métrage bi ñu duppee prix du mensonge ci atum 1988 la woon ci ñaar fukki simili mu wax ci histoire ñaari frère africain yu doon dund ca Paris la France ak lépp lu ci aju court métrage boobu sax jëloon na raaya tani d'argent ci bi ñu duppee les enfants de Dieu moom mile moo bind scénario bi boobule film sax jëloon nab raaya ca festival du film francophone ca Fort de France waaye nag yemul fii moom Moussa Sène Absa dajale na ay raaya yu bëri bokk ci filmam bii di Tableau Ferraille Pour moi, c'est oui, à condition qu'elle nous rende heureux. Je le promets. mu jël prix photographie ci FESPACO ci atum ñaari at gannaaw ba mu ko génnewee ci 2003 long bii di Madame Brouette itam primé woon nañ ko sa festival international du film ca Berlin. argent bi la jëloon sketch yi di góorgóorlu itam kenn mënatu koo fàtte ñu tolloon si 400 pièces pièce bu ci nekk juróomi simili la doon duré góor ak jéeg doon ci joxe ay message yu am solo jëm ci wàllub dund gi moom mi le Moussa Sène Absa mu def kon liggéey bu am solo prix du mensonge mu ko amaloon ca kenn bëggul ci 90 entrenommé jaaraama set setal ca 1991 moolaan 92 offrande Jare ca 93 sa twist à yàlla yaana 94 table ferraille ci 1998 mu ñëwaat si jëf jël jàpp 2003 mu jagleel askan wi góorgóorlu 1999 Blue pour une diva 2001 mu ñëw ci Ainsi meurent les anges 2002 mu dikk ak madame Brouette l'extraordinaire destin de madame Brouette Ngoyane le chant de la séduction ci 2004 Ngoyane Blue ci 2007 Yoole ci 2010 2020 mu dikk ak Black and White 2022 ak Xale jël samay loxo yoxu metti damay bëgg gi rëb yenn saay tolof tolof ak i natt yu takk bëgg yóbbu sama féet bi macha allah voilà Asma tu as euh, on a voulu faire un petit euh, hommage à ce ce ce ce monsieur ce grand monsieur je dirais euh, du cinéma sénégalais mais également cinéma africain euh, parce que de par son parcours mais également li mu def pour sigil li nga xamante ne moom moo di cinéma bi moo tax ñu def taxaw seetlu bi ak film xale bi nga xamante ne ne bokk na ci film yu ñu retenir pour le FESPACO de cette année ci incha allah rabbi muy film xale bi. demoon nañ keroog cinéma fële na le daal di seetaan film bi mu nekk film bu intéressant et on espère bien que ne mu bokk ci euh, cette fois-ci euh, prix bi nga xamante ne moom moo koy jëm comme ni ko Alain Gomis jëlee woon euh, fan yee voilà c'est ça macha allah. dire en commentaire. Mhm. mérité na ko bu baax a baax ndax lii ça berce tout un chacun de notre jeunesse sénégalaise effectivement ça c'est clair. voilà français bi ñu siy làkk dafay mën a tax mu jéggi réew mi dem si yeneen réew ñu mën a dégg mën a xam suñu ay talent important. c'est important et ñu gis na ne bu bëree bari même journée cinématographique euh, bu Carthage euh, amoon na ay raaya yu fa amoon yoo xamante ne def nañ ko mais également sur le plan international aussi hormis l'Afrique daf ci participer bu exceptionnel ba da ngay gis ne yenn ci ay acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci série yi muy def da ngay gis ne acteurs yooyu dañ leen di primer et c'est c'est vraiment important Asma Khadija beneen yoon dinañ ñëwaat ci yeneen euh, ci ñi nga xamante ne ne bind nañ également loo xam ne amal nañu njëriñ juste parler un peu de l'association de la presse euh, culturelle euh, euh, de nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu cinéma am nañ kii bu bees président njiit bu bees muy biige bopp bu enquête moom moo ko jiite remplacé kële di Fat Kiné Fat Kiné Sène bu APS donc mu nekk démb lañ doon amal assemblée général bi ci week-end bi donc mu nekk loo xamante ne lu am solo la ñu koy encouragé bu baax a baax asma di leen jox dig daje incha allah samedi prochain ci beneen numéro Arts et Lettres attendu peut venir s'installer en attendant ñu dalal gan gi nga xamante ni moom moo di monsieur Pape Massène Guèye président du conseil communal de la jeunesse de Fatick waxoon naa ko tantôt Fatick qui revient assez souvent depuis au moins dix jours je ne fais que parler de Fatick qui est contre euh, la politique euh, du président Macky Sall qu'est-ce qu'il y a pourquoi euh, vous rejetez votre fils ah, merci beaucoup Asma <laughs> euh, en ma qualité d'abord de président du conseil de la jeunesse et aussi en ma qualité de d'acteur politique. Mm -hmm. Donc Fatick n'a jamais rejeté le président de la République. Très président de la République, sa base, son fief, c'est Fatick. Donc cela veut dire tout simplement que depuis qu'il est entré en politique, mm -hmm. il n'a jamais perdu une élection à Fatick. Et récemment aussi, lors des élections législatives, on a eu un score fleuve, ce qui a fait que les Fatikois sont derrière le président de la République. Mais il y a de jeunes qui se réclament de l'APR et qui disent que euh, Fatick va mal. Donc ils sont libres de le dire, mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. faut faire un diagnostic sans complaisance de Fatick entre 2012 et 2023 pour savoir si Fatick a sur le plan infrastructurel, sur le plan des emplois, ou si Fatick a Avant 2012, Fatick n'avait pas d'université. Donc nous, quand on avait le bac, on vient à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou on va à Saint-Louis ou à Ziguinchor. Actuellement, on peut étudier mm -hmm. de l'école primaire jusqu'à l'université à Fatick. Donc c'est un, c'est une avancée notoire. Mm -hmm. D'autres jeunes qui n'ont pas eu la possibilité d'être dans le circuit normal, dans l'enseignement général, ont la possibilité de faire une formation avec le lycée technique et professionnel de Fatick. donc ça c'est sur le plan de l'éducation c'est sur le plan de la formation maintenant sur le plan des infrastructures Fatick une région centre était enclavée mais avec le président Macky Sall le pont Nelson Mandela permet aux Fatickois qui euh, la nuit ne pouvaient pas se rendre à Foundiougne permet au Sénégalais qui avaient des difficultés pour se rendre à la Gambie donc Fatick est désenclavé dans toujours le département de Foundiougne il y a le euh, port il y avait le port de Dakar, maintenant il y a un port à Fatick. Donc, et ce port-là va permettre à beaucoup de jeunes Faticois de travailler. Sur le plan aussi de l'emploi, il y a le conseil communal de la jeunesse dont je suis président et le conseil départemental avaient porté le combat pour la création du guichet unique. mais mais nag mais nag je suis d' accord lii yëpp ay réalisation président Macky Sall la d' accord. Mm -hmm. mais lii promesse euh, de campagne yu président Macky Sall ci atum 2011 joxe woon. Mhm. du woon lii y' a eu énormément de promesses pour Fatick. su mhm. fekkee ni da nga ma promettre 100. Mhm. jox ma 20 su ma neexee ma considérer ni defaloo ma dara. foofu laa bëgg a ñëw. Euh, ba mu may ma continuer rek. parce que emploi des jeunes. Mhm. dafa am solo si dëkk. Mhm. Fatick xam nañ ne dëkk ay ndaw ñoo fa nekk. Mhm. ñu créer pôle emploi pôle emploi boobu noonu léegi loo soxla en matière de formation bourse 3FPT yi. ren joxe nañ cent quatre-vingt euh, daaw boo ko boolee ak yu ren yi ça fait trois cent. sur le plan des financements rien que dans la commune de Fatick il y presque sept cent millions par rapport à la DER. au niveau de euh, l'emploi des jeunes toujours stagiaires yi. jël nañ fa lu mat cent cinquante stadiers actuellement boo demee première phase Promovilles bi mu ngi jeex ak euh, pavage yi jël nañ fa deux cent cinquante jeunes donc cela veut dire tout simplement que jeunes yooyu di porter combat bi peut-être am na lu leen metti mbala leneen mais c'est pas réellement le développement de Fatick moom moo leen ñor parce que développement de Fatick kum ñor da ngay accompagner le fils de Fatick parce que ñun président de la République ñu am ko moo ñu gënal ñu ñàkk ko parce que toutes les régions veulent avoir euh, président de la République juddoo mais Fatick lañ am sens am ko donc mooy lancer un appel à ces jeunes là ces jeunes euh, peut-être ils sont égarés peut-être ils sont perdus peut-être ils sont mécontents mais nañu jàpp ne Fatick la ñu am te pour développer Fatick il faut ñu joxante loxo. mais lan moo leen égaré foofu mooy coow li xam nga li nga wax nii yëpp am na solo baax na ndax fàttali li nga xamante ni moom moo di jëf yi ñi fi mhm. teg c'est important mais nag càmbar xool lan moo naqari nit ñi. ba ñu génn naan parce que hôpital régional bi quand même plateau technique bi war nañ ko mën a relever. pour mu am hôpital niveau 3 mais Fatick et programmé pour le conseil des ministre délocalisé conseil des ministres boobu dina permettre Fatick def nañ annonce bi dina am hôpital niveau 4 donc loolu début solution la ENO bi peut-être yàgg na pareegul mais dina pare mu nekk espace numérique ouvert jeunes yi di fa ñëw di jàng euh, projet phare mu ngi fa lu ñuy wax maison de la jeunesse ak de la citoyenneté maison de la jeunesse ak de la citoyenneté boobu dina permettre jeunes yi ñu mun a am centre d' boo xam ne dina leen mun a former parce que jeunesse balaa moo réclamer dara il faut mu réclamer formation l' autre chose mooy am na ñu bëri ñoo xamante ne ils se disent Fatick va mal mais ils sont ils ont bénéficié des largesses du président de la République à travers la fonction publique à travers des CDI maintenant am na ñoo xamante ne ñu ngi foofu am nañ ay contrat précaires au niveau des universités au niveau de la poste ça on le reconnaît tout n'est pas rose à Fatick il y a beaucoup à faire à Fatick mais quand même depuis que le président de la République un fils de Fatick est à la tête de ce pays là y a des avancées notoires sur le plan éducationnel sur le plan des infrastructures mais surtout sur le plan du désenclavement parce que Fatick est d un carrefour boo buggee dem Touba mun nga jaar Fatick via Euh, route bi dem ba Bambey mun nga jaar Fatick via route bi dem ba Diourbel boo bëggee dem Kaolack route nationale numéro un mu ngi fa te on a la le le privilège de d'avoir l'autoroute à péage Mbour Fatick Kaolack mu ngi en construction wax naa la léegi en construction encore une fois c'est ce que je dis su fekkee ni liggéey bi ci promesse yi dafa xaw tarre c'est très normal peuple bi yëg yënguwaat te euh, nous sommes à l'approche justement de la présidentielle de 2024 j'y arrive j'y arrive bonjour à vous comment allez-vous bonjour chers invités bonjour euh, aussi les téléspectateurs de ce matin te euh, débat bi ma fekkee dafa neex parce que en tant que jeune. <laughs> nous avons le droit de réclamer ce qui nous revient de droit. et comme li nga wax rek euh, surtout que président de la république bu juddoo si ay gox. yaakaar naa ne sax Fatick moom la ñu a jël la ñu waroon jël en exemple. ci en termes d'avancée en tout cas emploi des jeunes mais comme ni ko Asma Euh, xam naa promesse yi ñoo yàgg xaar bi aussi yàgg parce que tamit bu ñu demee ba fii ba ni ay jeunes di jug di kaas di jug di kaas aussi li nga xamante ne mooy le problème de l'employabilité yaa ngi wax pôle emploi mhm. pôle emploi ñu ngi wax ne dinañ dinañ joxe ay bourses ñu ngi joxe ay formations mais on a l'impression que euh, kenn du ko gis en fait. on a l'impression surtout que ce n'est que pour leur partisans. exactement leur exactement crois que je crois que kon dese ngeen xam euh, pôle emploi nan lay fonctionner pôle emploi bépp jeune. bu am moins de trente cinq ans am nga droit dem fa boo fa demee li ñu lay laaj rek mooy sa carte d'identité ak sa numéro de téléphone yow nga wax sa idée de projet boo waxee sa idée de projet waa ANPEJ dinañ ko matérialiser waa DER financé ko bu fekkee ne formation nga bëgg waa 3FPT dinañ ko def maintenant li nga wax noonu c'est vrai l'emploi c'est une problématique mondiale dans tous les pays am na problème emploi problème emploi établi de la jeunesse moo tax ñu def ñaari volet ñi nga xamante ne enseignement général lañ génne dinañ dem université Fatick am na université léegi ñi nga xamante ne soriwuñ ci jàng bi yàlla formation professionnelle mu nekk foofu maintenant boo yoree sa diplôme professionnel mbala mm. nga yor say lijaasa ci enseignement général là boo laajee liggéey l'État a l'obligation de te donner ça mm. li ngay wax sànq am na solo parce que ñu ngi jëm ci deuxième quinquennat bi le président de la République nekk un fils de Fatick <laughs> le président de la troisième mandat rek laa la wax président de la république nekk doomu Fatick maanaam deuxième cinq ans au président Macky Sall dégg ngeen. doomu Fatick ñun doomu Fatick ñoo war a nekk si kanam porter combat bi nekk ses équipes ses boucliers parce que bi mu faloo ba léegi. créer na ay ressources humaines au niveau de Fatick. il y a un moment donné il y de nomination à Fatick que les gens se mais président Fatick rek lay jox Fouta rek lay jox donc ñun Fatick. waruñ delloo président njukkal bu mel ni di wax Fatick va mal bala ñuy takk brassard. mais si ça ah, va boire parce que on en prend l'exemple de Idrissa Seck permettez-le moi s'il vous mhm. plaît euh, Idrissa Seck bi bi mu nekkee ci goxam. Euh, bëggoon sàkku réew mi. Mhm. dëkkam la njëkk defar. Mhm. mu soppi xar kanam bi gën ko rafetal ba ñëpp kontaan ni naam sax bu ko doon toppee wala di ko tuumal dara moom defar na ci dëkkam donc président Macky Sall on vous parlez d'un deuxième quinquennat mais nous sommes à 12 ans voire euh, bientôt 12 ans ou 13 ans même de de régime au, au pouvoir alors il a eu largement le temps de defaraat dëkkam. Fatick xanaa mën na ko def ci 5 ans. sotti <laughs> dara xëyul sotti te xale ñu dagul très bien très bien donc important, président de la république créé na ay programmes yoo xamante ne ñooñu ñoo ko war a gën a jàppale Promovilles ñëw na PACASEN ñëw na mais yeneen programme yi aussi dañoo war a ñëw jàpp mais Fatick quand même ku gis xam ne ba lampadaire yi bi ñu ñëwee 1000 lampadaires solaires ñoo nekk au niveau de la commune de Fatick te commune de Fatick réyul 13 communes la nee naa la motul les revendications am na revendications yu légitimes côté santé bi côté emploi des jeunes mais quand même il faut pas qu'on jette le bébé et l'eau du bain On a besoin du président Macky Sall pour continuer de fonder le Fatick du futur. Donc nous lançons un appel à l'ensemble des jeunesses fatickoises ñu retrouver autour de l' essentiel l' mooy lan développement Fatick parce que développement Fatick si la suñu épanouissement individuel nekk mais nekkul ay guéguerre mbala ay xëccu fii bala ay revendication yoo xamante ne la manière bi ñu koy defee ce n'est pas un troupeau tout le monde n'est pas obligé de suivre le tout le on n'interdit à personne de mun nañu revendiquer ak discipline mun nañ revendiquer te duñ manquer kenn respect loolu bu ñu ko defee je crois que Fatick dina dem kanam donc di leen lancer un appel ñu rejoindre la grande famille du du président Macky Sall pour continuer à bâtir Fatick parce que Fatick a besoin de ses filles et comme ni koy ministre yi di defee comme ni koy maire di defee comme ni koy yeneen responsable di defee y d'autres fils de Fatick yoo xamante ne ils font pas de la politique bi ñuy def ñoom dañoo ne APR ah, Fatick alors que c'est pas à l'APR de développer Fatick c'est l'ensemble des fils de Fatick boo seetee fichier électoral bi 6 millions lañ alors que <laughs> de Sénégalais lañ donc cela veut dire tout simplement que tous ceux qui votent ne sont pas dans les partis politiques am na ñoo xam ne bokkuñ ci parti politique yi dañoo war a contribuer au développement de la nation Donc c'est ça. Euh, Mais si vous avez, vous avez, un régime qui tire sur les entrepreneurs, sachant que euh, ce, ce, format de leadership permet justement de contribuer au développement du pays. Mmh. On a vu des leaders de partis euh, politiques qui sont des entrepreneurs ah avérés, bon oh, à l'image de Bougan Gaydani, ah sur là, qui on tire, là, là. à l'image de euh, Kabir Mbouj, peut-être qu'il aurait ah, peut-être ah, sous-entendu des ambitions politiques ou pas. Vous allez un mauvais procès pour ce régime. il tire pas mais il y a des règles à respecter dans ce pays-là on a beaucoup d'estime pour le président Bougane parce qu'il a créé de l'emploi qu'il a créé une entreprise on veut avoir beaucoup de Bougane mais quand on entre dans le champ politique tous les coups sont permis. Ah oui, ah oui, ah oui tous les coups sont permis, mais laissez alors aux on autres est, la liberté de se permettre tous absolument, les coups. Absolument. Je vous prends au mot. Vous dites tantôt mhm. qu'on peut revendiquer mhm. avec la non-violence, mm. mais avec de la pertinence et de la conviction. Si je dans le droit et le, Alors, et vous revenez dire que ci langue politique bi tout est permis. waaw je je peux m'expliquer. tout est permis parce que pas la violence verbale ni la violence physique. mais quand j'ai la possibilité d'anéantir mon adversaire politique avec des armes légales, je peux l'utiliser. Quand on n'est pas en conformité, on voit en, conformité avec le fixe ou avec le fisc avec ou d'autres trucs, l'État a ces leviers là. Maintenant, le président Bougane, comme d'autres entrepreneurs dont vous avez fait écho, à savoir Kabir on veut le réussite, on veut qu'il continue d'investir pour le développement du Sénégal. Très bien, merci. Maintenant, quand on est dans la politique, il faut savoir qu'on est dans une arène. Et dans l'arène politique, il a des coups qui sont permis comme d'autres qui ne sont pas. gars yi nee nañu nanguwuñu seen troisième mandat bi ngeen bëgg def soppi def ko deuxième quinquennat gars yi lool. troisième mandat deuxième quinquennat la maintenant ñi ko ah. validé mooy suñ farouche opposant ah. yow xam nga ne euh, Barthélémy Dias bokkul APR. Ousmane Sonko bokkul ABF il a des vidéos qui sont disponibles où ils disent que le président de la République a la possibilité de faire un second quinquennat xam nga juriste bu mel ni Doudou Ndoye xam nga juriste bu mel ni professeur Zouankou eux ils ont dit que la constitution actuelle dans ces dispositions permet au président de la République d'aller vers un second quinquennat li am solo kay mooy gars yi ñi mel nañ président de la République Macky Sall mbala ko parce que président Macky Sall moo ñemewu gars yi gars yi li ñu gis ndax nag bu dee Ousmane Sonko la yéen a koy koj kojaat bu amee meeting ngeen am meeting may ma ma ñëw bu amee mm-hmm. meeting ngeen am meeting feesal ba mu bëri te kenn terewu leen dara ngeen ne déedéet Mbàkke moom waru fa teg tànk bu gaan ngeen bàyyi ba bay bi soo ko amul parrainage yu mot excusez-moi excusez-moi oui vous le poserez toujours vous poserez toujours les conditions de ndëgg sërxal dans des <laughs> conditions euh, mais mais yu normal mais mais laissez-moi terminer ma phrase s'il vous plaît mais le meeting de Keur Massar a été autorisé parce qu'ils ont respecté les règles à Mbacké il y a eu un problème au niveau de la forme. Excusez-moi de vous dire que c'est un faux prétexte. Hmm. Pourquoi Laissez-moi vous dire pourquoi. C'est un faux prétexte. Parce que sur une liste de trois euh, signataires, signataires, on aurait pu appeler le trois, la troisième personne à venir. Hmm. Parce que nous sachons tous que humainement, dans l'organisation d'un meeting ou même d'un événement, on s'y perd. Et quand on s'y perd, le rôle de l'État, si vous faites un, euh, un appel à, euh, à, à une non-violence, c'est d'interpeller la partie. Venez compléter, voilà. on laisse passer cette fois-ci. Excusez-moi, mais une prochaine fois, nous ne l'autoriserons pas. pour, pour, pour, ne pas qu'il y ait de si violence, justement. De forme, le préfet a le droit de sortir un arrêté pour interdire. Maintenant, ce qu'il faut dire et que vous n'avez pas dit, c'est quoi C'est que Sonko n'avait pas le droit de, de de faire ce qu'il a fait à Touba. lan la def à Touba on interdit des manifestations politiques après sa prière il est sorti pour un bain de foule alors qu'il pouvait sortir par une porte dérobée et aller directement à Mbacké. mais si Ousmane Sonko est aimé quel problème vous avez avec l'amour que certaines personnes portent vous avez vu la mobilisation à Thiès. vous avez vu la mobilisation à Tamba.

Et je lance un appel à la jeunesse en tant que président du conseil communal de la jeunesse de Fatick et membre du conseil national de la jeunesse. Il ne faut pas qu'on accepte d'être les agneaux du sacrifice. Très bien. Les responsables politiques qui nous appellent à la violence, leurs enfants ne viennent pas. Vous vous rappelez, lorsque la maison de Sonko a été barricadée, il a demandé aux policiers de donner la possibilité à son fils d'aller à l'école. Au même moment, il demandait aux fils des autres Sénégalais d'aller braver l'interdit et de jeter des pierres de En tout cas, j'interpelle la conscience de toute la jeunesse et de tous les citoyens sénégalais à ne pas répondre à une certaine forme de violence par la violence. Après, on est libre d'avoir son opinion politique, sa conviction politique et son leader politique. La meilleure forme par la carte pour sa voix merci beaucoup merci euh, monsieur Guèye vous avez été très pertinent c'est bien j'aime bien gësam nit ñi génne li nekk si ñoom c'est très bien on voit que vous supportez le président Macky Sall avec conviction c'est important quand c'est par conviction c'est justifiable on fait place <laughs> justement à, à Marie-Alice oui, madame. Mmh. On, on va botter ou botifier ou on va d'abord dans notre cours justement de développement personnel de ce matin parce que quand on est dans la prise de parole. Vous pouvez, vous avez un aperçu sur moi ou pas Sur moi. <laughs> Il faut me juger avant de passer à autre chose là. Paul Mendy, Ah, c'est Mendy aussi, c'est vrai. Maman, une gommise. Toi, t'es une gomise ouais. Ma maman est une gomise, donc. Euh, ah, c'est <laughs> mon fils valide. qui est Mendy, c'est ça C'est ça. Ah, on, quand un homme commence à dire ma maman est une gomise, là. Ah, <laughs> pourquoi ça, ça, ça a commencé. Ouais. Voilà ça, oh. ah, voilà ça. Bon, on en revient à moi. Vous me trouvez comment en prise de parole, en assurance de soi par rapport à ce que j'ai vu, je trouve que c'est très intéressant parce que vous relancez sur des mots, vous allez chercher sur des termes où Je m'excuse, euh, mon, cher, mon, cher frère, des termes où il a clairement, je me permets, fauté en termes de vocabulaire, parce que quand il parle d'année entière par rapport aux deux casquettes qu'il porte, je pense que c'est un vocabulaire qui n'est pas favorable. À chaque fois, elle a essayé de vous, de vous piéger. On sent qu'il est à l'aise, il a préparé son discours, c'est très très bien. Et je pense que voilà, supporter quelqu'un avec conviction, c'est toujours très bien. Mais Diamouré, Morgan Lep. Morgan Lep. Et c'est important parce que dans la forme euh, de. Ça s'appelle comment on, on, rap, on dit figure de style. Euh, mais dans la présentation, j'ai oublié le mot, il m'échappe, mais pour ne pas perdre du temps, j'avance quand même. Mm-hmm. Les, les, nos téléspectateurs qui nous suivent ne comprennent pas. Des fois, quand vous êtes face à un, un apériste, mm -hmm. il faut être contre la personne pour que la personne personne puisse se défendre oui, un... et sortir ce qui est. Voilà. C'est, euh, ce sont ah, des personnages que euh, qu'on qu épouse. voilà mm. ensuite quand on est face parce que tantôt on me dit quand je j'invite euh, les gens de Sonko et que je les tacle on me dit kii Sonko rek la bañ quand j'invite les apéristes kii apéristes rek la bañ quand j'invite même les gens de Gëm sa bopp pourtant je travaille hmm. pour euh, voilà on me dit Gëm sa bopp rek la bañ kii donc faites la part des choses c'est important c'est ce qu'on appelle de la répartie alors vous êtes formateur en prise de parole publique Tout à fait, tout à fait. Donc tout d'abord, je souhaite euh, saluer mes parents, mm -hmm. ma famille, mes amis, plus particulièrement à DJ qui m'a beaucoup accompagné depuis le début, Honorio Prera et un grand frère Jean-Pierre De Silva. Mm -hmm. Je salue également toute mon équipe qui est basée en France, mais également les personnes avec lesquelles je travaille ici. J'ai un immense plaisir d'être ici accompagné de ce charmant plateau. Je salue tout le monde. J'ai beaucoup apprécié le débat qui était tantôt entre vous et Monsieur Gay. Euh, je suis ravi également de voir euh, une autre manjaque à côté de moi. Ah! <laughs> voilà. Elle aussi, elle est manjaque. C'est vrai Oui, c'est une Jandi. Jandi Ma mère, elle est manjaque. Ah oui, d'accord. Mendy. Mendy, très bien. Eh ben... lui. Il y a trop de mamans et de papas. <laughs> okay. On va dire que les en force. <laughs> voilà. Euh, effectivement, je suis formateur en prise de parole en public. Mm -hmm. Je suis basé en France, comme vous l'avez dit. Je viens au Sénégal régulièrement pour accompagner des locaux. Mm J'ai toujours un immense plaisir de revenir ici parce que voilà, fii lañ juddoo fii lañ màggee te bu ñibbi doon am fi nga fi nga bàyyi ko fi ngay dellu. Mhm. looloo tax waaw teewaay bi am na solo lool. di xaar ñu tijji waxtaan bi rek waaw. Sénégal waaw mën nañ tàmbale ah on déroule justement ñu bëri xamuñu lan mooy njëriñu euh, prise de parole en public te pour bu ñu la géewalee rek nga war a wax li moo loolu la tax sax des fois ñu bëri di wax ay bêtises ay tojaange mhm. lu ñu warut a wax si mbooloo ñu wax ko si mbooloo vous l'avez dit tantôt moom dafa maîtriser sujet dafa est-ce que dafa bokk ci critère wu euh, prise de parole en public Oui, je pense que c'est peut-être le critère le plus important parce que la maîtrise, en fait, c'est ce qui vous donne la confiance. Mm -hmm. Pour avoir la confiance, il faut de la préparation. Euh, on sent qu'il a préparé son sujet, il a ses arguments. Après, forcément, la parole, elle est tellement compliquée à prendre mhm. même si on la prépare, il y a toujours certains impairs. Ils peuvent être graves, ils peuvent ne pas être graves. Mais ce qui est important, ce que je dis aux Mais la base, c'est quand même la préparation de votre sujet, savoir dans quelles conditions vous allez prendre la parole, quelle est la posture de la personne qui va vous interviewer ou tout simplement avec laquelle vous allez échanger et d'essayer tout simplement d'être le plus naturel possible. c'est important alors ba yan njëriñ la euh, former sa bopp ci mën a wax ak war a xam li nga wax di am si dundu doomu aadama. Euh, damay tontu ci benn euh, benn baat boo xam ne Warren Buffett boo xam ne à un moment c'était l'homme le plus riche du monde. Mm-hmm. dafa demoon ci ay étudiants. ñu nekk ci état am États-Unis gars yi laajte ko qu'est-ce qu'on peut faire pour nous améliorer qu'est-ce que les étudiants doivent faire mu ne le conseil que je peux donner aux étudiants c'est tout simplement d'améliorer leur qualité de prise de parole aussi bien à l'écrit ou à l'oral et en faisant faisant ça ils augmentent leur valeur de 50 pour cent ah. vous imaginez mm-hmm. ki ko wax du coomo mm-hmm. c'était l'homme le plus riche à un certain moment mm-hmm. bu ñu waxee loolu ça montre que la prise de parole en public, elle est tellement importante. C'est ce qui va permettre à une personne à compétence, enfin à deux personnes à compétence égale, d'avoir une qui va émerger et l'autre qui va rester toujours à la même stature. Parce qu'elle n'a pas cette capacité de porter un message. Et je souhaite également parler d'un homme qui s'appelle Myron Golden, wow. qui estime qu'il y a quatre valeurs au monde. Il dit que la valeur la plus haute, c'est les gens qui imaginent. Bougane Gueye il a imaginé cette télé, il l'a créée. Mmh. Ensuite, vous allez avoir les communicants. C'est vous, par exemple. C'est vous qui portez le message. Vous voyez Ensuite, derrière ça, vous allez avoir une autre valeur, c'est la valeur managériale. Les gens qui unifient. Vous voyez Et ensuite, vous avoir les gens euh, qui est péjoratif, mais les gens qui vont faire les tâches. l'une des valeurs les plus importantes, c'est la communication. Et il estime que si vous savez communiquer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le monde, même si vous n'avez pas la compétence, mais vous allez pouvoir convaincre une personne pour travailler avec vous. Et ça, c'est important. C'est ce que font les politiques. Absolument. Dans les promesses de campagne, Monsieur Guy. L'art oratoire. L'art de la prise de parole et de donner des promesses de campagne. Mais non, est-ce un couteau à double tranchant ouais. <laughs> Moi, je pense que ce qu'il faut comprendre, chacun a son rôle. L'homme politique est un communicant. Mm. Il ne peut pas, s'il est au pouvoir, très souvent, il va nous dire qu'il a fait un excellent bilan. Et s'il est dans l'opposition, très souvent, il va nous dire que une fois qu'on lui donnera la chance, il fera un meilleur travail. Absolument. Maintenant, c'est aux populations de faire le travail tout simplement pour choisir. Je dis bien pour choisir. Mm -hmm. Et une population qui est avérée, une population qui suit la politique, et c'est le cas au Sénégal. Les gens mm -hmm. suivent beaucoup la politique. Absolument. Et parfois, vous pouvez rencontrer des gens qui, a priori, peuvent sembler peut-être pas euh, assez, assez intellectuels dans leur façon de mmh. faire, dans leur parcours, mais il peut vous faire des propositions, il peut vous faire une analyse politique exceptionnelle. Maintenant, pour moi, c'est simple. Quand l'homme politique communique, à nous de savoir ce qui semble raisonnable ou pas. Pour moi, c'est ça le travail de la population. À nous ce que c'est tenable sur le plan de l'économie Est-ce que c'est tenable sur le plan de la durée S'ils nous proposent de faire un hôpital en trois ans, où il va comment il va le financer, qui il va mettre comme personnel, comment il va le maintenir. Et ça, c'est le travail de la population. Ça, c'est important. Donc, face à, à un excellent, euh, une excellente personne en prise de parole mm -hmm. ou un mhm. excellent, euh, vous dites, de, <laughs> de l'oratoire, comme vous dites, mm -hmm. il va falloir peut-être soit aussi être euh, un excellent détecteur de mensonges, mmh. parce que quand on sait trop bien <laughs> parler, on sait trop bien mentir, j'en sais quelque chose. euh, oui, en fait, là, on va passer sur la manipulation. Mmh. Mais la manipulation, ça se contrôle, encore une fois. Parce que comme je disais, aujourd'hui au Sénégal, nous vivons des moments assez tendus. Oui. Chacun va dire que tout à l'heure, il a parlé du, du deuxième quinquennat. Euh... Qui est un quinquennat. jeu de mots. De... Qui, est, qui, est, un jeu de mots. Parce qu'ils savent que les Sénégalais ne vont pas comprendre quinquennat. Avant qu'ils ne comprennent, ils se seront déjà positionnés. Donc c'est pour ça qu'il faut rappeler que deuxième quinquennat mooy troisième mandat. maanaam ñoom sept ans au président Macky Sall yi. ils l'ont balayé. non on l'a pas balayé. mais léegi nag cinq ans bi rek am. on l'a pas balayé. <laughs> soo demee terme mu génn démb si guddi la waxal rek. Ah. deuxième quinquennat. que non yàgg yàgg nañ après voilà je suis pas forcément dans une analyse euh, euh, euh, politique. mais ce que je veux dire par là c'est que tout simplement un homme politique s'il ne communique pas il peut pas aller loin. c'est pas pour rien aujourd'hui que vous voyez Ousmane Sonko faire autant de sorties médiatiques parce que c'est l'arme qui lui permet tout simplement de rester présent dans la tête des Sénégalais et comme waaye maintenant on lay <laughs> bàyyi non non mais man maa ngi si. il faut ngay mhm. dérouler au fur et à mesure. ñuy gën a xam parce que c'est important. Mhm. Euh, kon manipulation ci li ñu tolloon su ma juumulee lan mooy forme de manipulation dans une belle forme de communication. en fait ce qu'il faut comprendre c'est que vous proposez à quelqu'un euh, à une personne, que ce soit dans la scène politique ou dans le travail. Pour moi, la, la manipulation, c'est proposer à la personne de suivre quelque chose qui n'est pas dans son intérêt. Mm -hmm. Maintenant, la collaboration, on va proposer une chose à une personne où la personne va retrouver ses intérêts et nous également, on va retrouver les nôtres. Maintenant, euh, je pense que la manipulation, on le, on le, fait tous. Avec vos enfants, il y a un moment, vous allez les manipuler. Mm -hmm. Tout simplement parce que vous savez que si vous ne passez pas par là, les enfants ne vont pas comprendre la logique de ce que vous leur proposez. Vous comprenez Maintenant, ce qui est mauvais, c'est la manipulation. Elle dit dans le couple, le, mari. Il a la manipulation. Et, là, vous allez m'excuser, il y a trois femmes dans le plateau. Sur ça, euh, <laughs> vous faire chacun, avec ses armes. Hein? il y plus d'hommes qui manipulent. Comment plus d'hommes qui manipulent que c'est des paroles de femmes, donc euh, on ne peut pas dire le contraire. J'aimerais bien un bon débat entre euh, Mendy et Gomi. <laughs> donc voilà, mais en fait, ce qui est important dans la prise de parole en public, pour moi, il y il y a quatre fondamentaux. Pour comprendre la prise de parole en public, il y a trois éléments. C'est la communication verbale. ce qui sort de notre bouche, ce qu'on dit, l'expression orale. Ensuite, on va voir la communication non verbale, l'attitude, la posture. Voilà. Là, tout de suite, nous avons tous des postures différentes. Vous voyez Voilà. Euh, et moi, j'ai une posture royale. Mhm. Voilà. Parce que la posture, elle est haute, elle est droite. Vous donnez l'impression d'être en confiance, fier. Sûr de vous. Voilà. Vous voyez supérieur. Supérieur, si, voilà. vous, si vous voulez. Arrêtez de me dire que je suis Dodge parce que les gens. <laughs> non, mais c'est vrai. C'est heureusement que vous venez hein, nous donner des cours aujourd'hui parce que Luisa, il est important. Des fois, vous voyez dans le jugement de ce que soit sur la toile ou autre, qu'il nous donnait. Alors que c'est de l'assurance. Qui nous sont faits, alors que c'est un excès d'assurance ouais. qui dérange. Et malheureusement, ça ne devrait pas déranger parce que tout un chacun a la capacité de faire un travail sur soi pour y arriver. Si vous ne pouvez pas, je vous conseille justement de faire appel à monsieur Paul Mendy qui vous y aidera. Voilà, n'est-ce pas Alors, quelles sont les cibles de clients que vous avez en entreprise en général Euh, nous, nous avons quatre cibles de clients, c'est-à-dire nous travaillons avec quatre groupes, les entreprises, les associations, les institutionnels et bien évidemment les particuliers. Euh, ce qui est important, c'est que quelle que soit la personne, le plus important, on a toujours une méthodologie. On fait un par rapport aux besoins de la personne mhm. et suite à ces diagnostics, nous avons plusieurs formes d'accompagnement ou plusieurs formations. Euh, le séminaire que je vais faire au à Dakar, à l'UCAD, euh, 4 et 5 mars. En fait, c'est un séminaire qui est conçu pour répondre à des problématiques purement professionnelles. C'est-à-dire nous accompagnons des professionnels pour qu'au terme de cette formation, qu'ils soient meilleurs dans leur prise de parole. Donc on va travailler sur des aspects comment gérer une prise de parole lors d'une réunion. Et on sait qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont à des réunions et la seule prière qu'ils ont, j'espère la parole <laughs> la rhétorique qui vous permet de répondre non seulement euh, à des communications où vous êtes attaqué. Tout à l'heure, à chaque fois que vous l'attaquez, il savait répondre. Et en fait, euh, il y a tout ce travail qui va faire que quand nous terminons le séminaire, en fait, le professionnel qui est venu, il se rend compte des erreurs qu'il fait le plus souvent. Par exemple, vous allez avoir des gens qui vont avoir des tops. Ils vont tout le temps commencer leur phrase par des dons du coup. Et en fait, ça... <laughs> apparemment, Luzarne. Du voilà. coup, euh, euh, du coup. Voilà, euh, euh c'est moi, ouais, euh, quand on cherche les mots. C'est pas forcément quand on cherche les mots, mais quand on utilise à outrance un mot ou mmh. une expression. Absolument. Et parfois, une personne qui veut être éloquente, ça va tuer son éloquence. Parce qu'à chaque fois, en fait, elle se ralentit elle-même. Et nous, notre travail, c'est de faire un diagnostic sur tout la posture, l'attitude, tous les éléments qui vont permettre à la personne de savoir quelles sont les choses qu'elle doit arrêter tout de suite Et ensuite, on va l'accompagner à comprendre quelles sont ses qualités parce que chacun a un parcours. Et à travers votre parcours, vous avez des choses qu'une autre personne n'a pas. Par exemple, parfois, vous allez avoir une personne qui va avoir une grâce naturelle. Dès que la personne entre dans la salle, on a envie de lever la, euh, lever la tête, lever les yeux, pardon, regarder la personne. Je vais, donner l... voilà, je vais donner l'exemple, justement. Voilà. Euh, c'est ça. Je, je, mettais un peu de suspense, mais là, là elle m'oblige à le dire. Donc, Asma Khadija, la personne la plus charismatique du Sénégal. Voilà, donc, voilà. On va, on va souvent, c'est les petites <laughs> en tout cas, mais c'est très bien euh, toutes ces explications. Il y en a qui demandent si vous donnez des cours sur Paris où C'est mon cousin <laughs> il a, il le coach, de me marier. Mhm. Donc il me, il ici sur la toile. on, on va l'accompagner. Il trouvera les mots pour que voilà, vous soyez d'accord. Je vous mettrai en relation, Inch'Allah. Avec plaisir, Jacques Yacoub Negri, merci beaucoup de nous suivre. Merci à, à, à vous d'avoir été là, c'est très important. Donc j'interpelle toutes les entreprises qui ont besoin d'accompagnement. Les écoles. Dans les écoles. Même les universités. Oui. Justement, à ce ouais. niveau, vous allez me permettre un propos. Euh, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre avec beaucoup d'humilité, je pense maîtriser ce que je fais. Et très souvent, quand je coach une personne, euh, la personne elle est satisfaite. J'ai beaucoup de pédagogie. Euh, quelle que soit la personne, j'arrive à mettre à l'aise. Mais au Sénégal, vous allez avoir des gens qui ont besoin. Ils savent qu'ils ont besoin. Vous savez qu'ils ont besoin. Mais quand vous les sollicitez, vous faites le déplacement, prendre une décision, ils mettent une éternité. Et ça, c'est vraiment dommageable. C'est à la... l'image du régime au pouvoir, vous savez. Non. <laughs> c'est vrai. il faut vraiment comprendre l'importance de la formation. Seule la formation est le seul moyen d'instruction qui va vous permettre de, de vous élever. Il n'y a oui. pas une autre possibilité. Très Maintenant, bien. Très bien. les écoles, parfois, je les contacte. Euh, euh Mais moi, j'aime beaucoup les gens quand ils savent que vous êtes bon, qu'on aille vers vous. Ah, c'est une question de culture. une question de culture. C'est voilà, on n'a pas ce, cette euh, culture-là d'aller de, d'aller chercher la connaissance. On est un peu nonchalant. Malheureusement. Oui, c'est vrai que c'est un, un, un, peu dommage. C'est dommage. C'est dommage quand même. On est très nonchalant, vous dites, Marie-Alice Oui, mais c'est pour ça. Parce que nous, xam nga ñun dañoo judd rek nekk ay buur xamuñu xam nga jaam yi dañuy jaar fi dem mais xamuñu ko trop et ça nous a suivi on n'a pas xeexuñu suñu indépendance dañ ñu la ñuy def avec monsieur Diallo justement c'est très important d'abuser du temps qui m'est offert par le service commercial <laughs> et je ne voudrais pas. les numéros de téléphone s'il vous plaît ensuite. Euh, les numéros de téléphone justement <laughs> au domaine du service commercial et si ah. toutefois je me fais taper sur les ah. doigts. alors donc je d'éviter de me faire taper sur les doigts tel un enfant qui est sage à sa place. Marie-Alice, on fait place à la beauté. C'est ça. Esthétique. si vous avez des bourrelets yéen ñiy lekk buuru seen yii nii ak seen femme bi Marie Alice nee na moom ak Luisa dañ ciy ànd toj ko rajax bu ko de <laughs> bu ko defee dootoo leen ko amati te vous n'avez pas besoin d'aller vous faire opérer pour cela c'est fort possible ni vous n'avez vous n'aurez besoin d'aller en salle de sport ni <laughs> tas seen yaram yi Marie nan la ñuy def pour yegg foofu comment on fait pour pour pour pour vos soins. Bah actuellement il y a une méthode que j'ai euh, ramené j'ai pas instaurée dans mon institut c'est la lipocavitation. et eh, et eh, luy loolu yow. c'est c'est-à-dire. Mhm. ça permet en fin de compte de. ça permet la cellulite. d' accord ah. voilà. Eh, mbay <laughs> la cellulite. Mhm. raffermir la peau. Mm. et surtout la silhouette. silhouette mooy dagg. c' ça. Ah. comme fait si bien madame le mardi et le vendredi. <laughs> faut sortir les secrets devant les enfants ici hein. <laughs> hein Luisa. Ah, sortir mes secrets. donc ceci dit ah silhouette mooy dagg bi jigéen di am remodeler la silhouette d'accord mën nañ seetaan li nga xamante ni moom nga ñu indil bu ko defee peut-être ñi ñuy seetaan gën a mën a xam euh, li nga xamante ni gis nañu à peu près en image mais lii massage la du massage si en fin de compte c'est avant de faire euh, tout ce qui est machine sur le corps faut vraiment bien masser le corps le préparer le corps surtout mm préparer le sang la le préparer le, préparer la peau. Euh, le, euh, comment je, je perds mes mots, excusez-moi. <laughs> C'est peut-être l'influence de Paul Mendy euh, sur Peut-être euh, qui j'ai peur de me trouver les bons mots qui me jugent. je te regarde pas. Je, regarde pas. je veux dire préparer, voilà, vraiment préparer la peau. Mm -hmm. Vraiment, vraiment, vraiment préparer la peau. Euh, le, montrer qu'on la peau, on va la travailler comme ça, on va. La, ça permet aussi de la peau de, de, de, de sentir qu'elle va se faire travailler. ah. voilà maanaam da ngay yëngal graisse yi. voilà yëngal der bi comme ça bu ko defee. mais maintenant qu'est-ce que vous faites après j'ai vu une machine sur le ventre de la dame c'est cette machine là qui élimine. c'est ça en gros cette machine là permet de de raffermer le corps. Mm-hmm. exactement ça veut dire en gros elle décolle elle décolle elle délocalise. Ah. la graisse la graisse ah. Elle ne l'élimine pas. Non, elle la délocalise. Ah. C'est-à-dire en compte après vous vous l'éliminez naturellement. Soit par en buvant de l'eau, beaucoup d'eau. Ça qu'on dit aux gens de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Déjà, boire de l'eau, c'est très bien pour la santé, Louisa dit de boire ça hydrate. Euh, et surtout euh, d'avoir aussi. Une, les gens, mais d'avoir une très bonne hygiène de vie, ça joue beaucoup. Ah, c'est quoi une alimentation De manger correctement. De prendre soin de soi. C'est-à-dire de, comme tu fais t'as affirmé. S'affirmer, <laughs> c'est très bien. C'est très bien. C'est important, en fin de compte, tout ça. Les gens, ils oublient. C'est vrai que c'est bien beau de, de, de, de venir à l'institut, faire des soins, mais après, derrière, s'il n'y a pas de. S'il y a suivi, les hamburgers. Si, si y a derrière, les... Euh, euh, j'arrive, tu fais la machine, tu fais, bah, tu fais tes ouais. séances, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est très bien. Ouais. Si demain, tu, tu rentres, après, tu manges un hamburger. du ceeb bien gras. bien gras. bien <laughs> mais mais par <laughs> mais par contre euh, euh, par rapport à un témoignage par rapport à cela euh, le vacuum au ventre là. oui mais ça fait manger la personne il paraîtrait. plus tu le fais plus tu manges je sais pas pourquoi. moi j'ai jamais de retour là. ah oui d'accord donc ça n'a rien à voir sur l'appétit. ça du tout ça n'a rien à voir. La petite, c'est la personne qui est comme ça. Si elle aime manger, elle aimera toujours manger. Mmh, D'accord. Ça, on va pas se... Mais quand même, il y a, y, a, y a, un bon retour, c'est-à-dire cette cliente-là, on peut, au bout de plusieurs séances, au bout de combien de séances, on voit la personne perdre la graisse ou la restocker ailleurs les, ça dépend de toute personne. Au jour d'aujourd'hui, en fin de compte, il y en a qui, on peut le voir dès la deuxième séance, comment que son corps a vraiment changé. Et après, tout le long. En compte, moi, je vois souvent mes clientes, je les vois souvent à la deuxième séance, où elles me reviennent, elles me disent... Euh, oui, c'est vrai que j'ai vu le, la différence quand j'ai mis mon pantalon. Mon pantalon, il, il, glissait un peu. D'accord. C'est très bien. Et au fur et à mesure qu'elle continue les soins tout le long des 6, des 5 séances, et après parfois juste, euh, juste préparer le corps, donc ça veut dire essayer de regarder euh, ce rythme en fin de compte, même si les 5 séances sont terminées, on peut continuer à faire deux séances par mois ou une séance par mois, juste pour continuer à préparer son corps, à l'aider à éliminer tout, tout naturellement et tout doucement. sans d'un seul coup bah, comme la chirurgie quoi d'un seul coup la chirurgie on arrive bah, on arrive bah, c'est parfait quoi mm, mm. c'est passé au bloc malheureusement pour éviter tout ça venez chez Emma Boutique D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Il est important de prendre soin de soi. Vous êtes en promotion, il paraîtrait-il euh, Actuellement, oui. Bah, exactement demain, car demain, euh, au Sénégal. Et je très fière de moi. Oh, <laughs> machallah. Et ça marche Les gens, ils viennent, c'est pas dans la culture sénégalaise d'aller se faire pamti-pamti. Sinon, ce serait là, dans la culture de certains d'aller se faire masser quand même. C'est ça. Mais après, comme, comme, je reviens toujours à ce qu'il vient de dire, Paul, c'est vrai qu'au Sénégal, le, le problématique qu'il y a, c'est que les gens, tant qu'ils connaissent pas, ben, ils n'arrivent pas. Il faut vraiment euh, les tirer. Et voilà, c'est limite, c'est oui, euh, si un tel a fait, je peux faire. Absolument, Mais lui-même ne peut pas dire je vais faire sans attendre un tel a fait. La preuve sociale, très important. Mm. C'est important. La prochaine fois, elle viendra avec, euh, je pense, une séance de blanchiment dentaire. dentaire c'est ça. Ah, vous et Luisa, vous allez nous expliquer c'est quoi blanchiment dentaire et quels sont les risques sur la dent. Parce que <laughs> on aime bien aller se blanchir les dents là, mais ah, il paraît que ça te casse les dents, les blanchiments dentaires. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Après, c'est la personne aussi quand elle vient blanchir les dents, il y a des, une manière de, je veux dire, euh, parler à son client, lui demander réellement si elle a des problèmes. À la base de, de quand, elle, quand elle se brosse les dents, si elle saigne au niveau du brossage, si réellement elle a euh, des problèmes de, de, de, de gencives de vraiment de tout poser les bonnes questions. On verra, on verra. Mm-hmm. Peut-être dans 15 jours, vous reviendrez avec ce sujet-là, plus amplement, en compagnie avec de Luisa Djandji. Merci beaucoup pour l'édition d'aujourd'hui, Monsieur Massen Gueye, qui lui est très pensif sur ce plateau. Vous avez beaucoup de choses qui attendent. <laughs> <laughs> Le message que je voudrais lancer à la jeunesse radicale, message de paix, message d'unité. Nous savons Fatick président Macky Sall lañ am ak responsable politique yi ñu fa bàyyil comme le maire Matar Ba les ministres. Ah, ak yeneen DG ak DG donc li am solo rek mooy que Fatick mun na développer mais développement Fatick instant bi dafa lié wu ak une personne muy le président de la République. très nguur bu nekk nag dina jeex mais président de la République war nañ ko mun a jàppale ba mu am deuxième quinquennat beneen aspect bi ma bugg a wax mooy que la jeunesse. sénégalaise dans son entièreté mu ngi leen di ñaan ñu ba ñu dugg ci ay détails violence ñun am nañ suñu carte électeur ku ko neex nga milité parti bu la neex ku ko neex nga bokk société civile attends le jour des élections nga dem voter candidat ce choix. très bu sénégalais yi defee à majorité président de la République am deuxième quinquennat on va continuer à développer Fatick mais ma koy ñaan ne. étape conseil des ministres délocalisé yi di ñëw bu jógee Sédhiou na ñëw Fatick parce que Fatick en a besoin c'est vrai que y a eu beaucoup de réalisations mais comme ni ma ko waxee rek on doit évaluer mais aussi on doit continuer à développer Fatick et ci développement Fatick ci la suñu épanouissement individuel merci merci beaucoup à vous merci monsieur Paul Mendy Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir de partager ce plateau avec vous. Mhm. Euh, je souhaite juste euh, envoyer un message de paix parce que Sénégal boo amuloon jàmm duñ fi ñëw donc dañuy ñaan rek voilà nit ñi gën a dal euh, li ñu jàpp ni moo jaadu ñu def ko te yàlla rek tax. parce que dëkk bu amee jàmm ci la lépp euh, xaj waaw di encourager nit ñi formation wax dëgg fa yàlla munoo def lu ko gën ci àdduna parce que loolooy tax nga jëm kanam waaw wolof yi nag dañ ciy góorgóorlu donte dégguñu ko bu baax <laughs> damay àggali rek ci français moom mooy gën a yomb donc je souhaitais tout simplement dire aux gens que voilà j'ai une activité que je tiens ici je ne dirai pas le numéro de téléphone <laughs> rassurez-vous ici au Sénégal le le 4 et le 5 mars donc formation dont la cible c'est les managers chefs d'entreprise profession libérale mais également les salariés Euh, c'est notre cinquième séminaire de formation, donc si on en fait cinq, euh, c'est que ça marche. Je vous invite à vous inscrire. Les numéros de téléphone, vous pourrez trouver sur nos réseaux sociaux. Je compte également remercier euh, un de mes partenaires, à savoir EDB Productions, avec lesquels je travaille même en Europe. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt de la chaîne Leader de nous porter du crédit et de l'intérêt. On interpelle encore la conscience de tout un chacun à la, non-violence. Il est important. On se faire raison sans vraiment se faire violence à autrui kër boo dugg da ngay gis ne nii man ak Louisa mi bu ñu seetee am nañ ay maam xëy na yu ñu bokk kon ñu ñëpp ay mbokk la ñu te eh, ñi bokk duñu reyante ci seen biir yor nañ carte nag te ku ñu neex a àndal léegi nag carte googu mooy départager bu ëllëg ëllëg jotee eh, li nga xamante ne mooy suñu bëgg-bëgg bu dee eh, sénégalais yëpp bëggatuñ président Macky Sall voté leen contre bu dee ñoom ñëpp bëgg nañ président Macky Sall leen pour bu dee sénégalais yi bëgg nañ keneen voté leen pour kooku bu ko defee kenn du ñëw nan leen nan ak naka la mais réew mi waruñu ko violenter merci beaucoup à vous Louisa Diandi. Ah. incha allahu rabbi ah oh. loolu moom la. massage <laughs> dafa baax dafa baax ci yaram man non <laughs> mais c'est très bien c'est très bien parce que son institut là son salon elle est diplômée. c'est une professionnelle. Ah. reconnue comme esthéticienne. Ah, ce n'est pas une masseuse jacuzzi. Ah, merci beaucoup Marie-Alice. ils peuvent venir. Ils peuvent ah, venir, ils peuvent. Mais je leur recommande même. Franchement, ils peuvent venir. Ils peuvent tous ah. venir. Moi, je leur recommande de venir. C'est en bordure de route, il y a des caméras, il y a un rideau qui vous sépare. Voilà, qui vous sépare, il y aura pas de... C'est professionnel. Voilà. Et médical. et médical. yaa ngi politique ma ne yaa ngi politique de. émission bi jeex na buñ ko seedee nii. non émission bi jeex na de yaa ngi politique ba léegi de. foo boo demee moo gën a bëgg massage ñëpp. sànq sa waaw. même vous même vous même vous. avec grand plaisir moo fay dem. puis même ramener même son co si vous voulez avec grand plaisir. waaw waaw invitation invitation officielle. jeex na émission bi jeex na officielle. citation directe Daga. <laughs> non Guèye day tooñ boo demee moom mooy dem quoi. boo demee moom mooy dem. Amaryalise ah, man maa ngi samay tànk jël benn ci journalisme bii. bi ma jàddee koñ yeeg level yàggul bul ma dugal ci ay citation direct merci beaucoup en tout cas merci à vous comme je le dis encore de nous porter de l'intérêt merci à l'équipe technique de tenir bon pour que les projecteurs restent allumés afin d'informer les Sénégalais on se retrouve demain dans une autre édition de Subatel mais en attendant Mame ak bëri wax dana tax nga fàtte l'essentiel waaye comme ñun nag <laughs> bëri wax suñu yëf la dañuy fàttali ni rek ki ñu solal moom moo di Beauty by Binouche euh, une très très brave jeune dame hein, qui essaye de son mieux, euh, de faire de son mieux pour contribuer à l'économie sénégalaise. Alors, moi, me solol, Marie-Alice, vous me regardez doucement, je c'est en train de revenir à la mode, accompagnée d'une veste. Il faut de l'imagination pour mon Elle a du talent, elle a de l'imagination. Elle est joignable au numéro au de l'écran. Vous faites qu'elle voilà. Donc, vous faites qu'elle est orange money, mon côté récit 62 79 19 Beauty by Binouche à joindre sur WhatsApp si vous voulez être aussi belle que moi ce matin. À demain, Inch'Allah. taamu leen a yokk soo yónnee cent mille francs puis cent francs fii a le 14 février saa yoo yónnee xaalis wala nga jëfandikoo sa kalpe ngir fay loo jënd mën nga bokk si ñii di gagné bés bu ne benn week-end en couple tout frais payé ci hôtel Palm Beach Saly waaw waaw ànd dundaloof bi ak ki nga bëgg Orange